dinaa di wax ne duha mooy yor yor tey nee naa la bokk na si la ma gën a bëgg yor yor laa ko ñàkkoon muy sama waajur bu jigéen mu mel ni fa tabarakalaa loolu uh, mbir la bokk na si la ma gën a neex tamit si doxaa laa ko am muy si laa amee taaw mu nekk góor fa tabarakalaa bi yàlla doog defee nuy donga daara it nuy dem ba fa tabarakalaa yàlla boole noog wëllëre boo xam ne eh, dafa yore rajo bokk ma bokk si ñun njëkk a contacter yàlla def ma bokk si ñi fa njëkk def émission fa tabarakallah ba ma njëkk a def émission émission ba amul tur waaye yàlla daan mënu tànnal doxaa tànnal googu mënu ko tànnal ñu sant si bu baax a baax a baax ndax dinaa di wax ne suñu amee barke doxaa dañuy am barke bolal aqiratu xayrun laka min ula waaye dañuy am barke wala saw fa yoxtika rabbuka fa tarda looloo tax fa tabarakallah lépp loo xam ne taxawal nañ ko te mu ànd ak doxaa rek yalla ngi nu si defal lu kawe suñu ñort loloy tax fa tabarak la suñu yene yëpp mooy doxaa dem ba doon entreprise bo xamné ay téméré téméré nit a say nax ka ko mom tay koy joxe kenn la rek moy jël jëla jëlaluxu ñun Mouhamadou Mountakha tulun suñu bopp suñu bop frontière néewulu fi lañ wara yem nax barke doxaa suñu ko yàlla mayé man na àgg fu nek tay fa tabarak la lolo lañu taxaw lolo lañu def suñu xel ndax benn mag nee na boo doyadee boo wéetu boo wéet walla nga ne sa xalwa wala nga yor sa kurus wala yaa xam yoon boo mën di ñaanee nga doyadee doyadi bay ñaan yàlla ne ko néegu ñax laal laa laa lay ñaan borom bi maa ngi lay ñaan néegu ñax nee na borom bi bu lay may bi senn la lay jox ndax danaan amuloo bopp nee na du la jox néegu ñax bu mat sax ndax day xam ne amuloo bopp la fi ne lépp ko koy joxe mooy borom bi mhm. kon bu nit utal boppam frontière looloo tax fii ñu toll si barke Duha mhm. am na ñenn ñoo xam ne ay borom kër lan te si Wadduha la ni suturloo lool it ñaan yàlla mu yokk lool mu yokk lool si barke Wadduha waaye comme noonu nga ko déggee Wadduha pay argu mhm. déggee ko boutique Wadduha yi mhm. déggee ko taxi Wadduha mhm. fa tabarakallah noonu la ni ñaanee ni yeneen i xéewal ni ki daara Duha nga xam ne daara ju nu la joo xam ne bi fa tabarakallah jàngale alquran si koo xam ne ku fay indi sa tout tànk dañ koy jàngal dañ la koy yaral te du am lenn lu nu la si teg loolu lépp bokk na si suñuy procès Mahamadou Lamine Muntaxa mbokk yi mu nekk loo xam ni am na solo dégg ci bunt boobu li waral Wadduha dégg ngeen tam tabarkal la sunu borom rek ko tan lo mu nek lo xamni tabarkal lo am solo la euh, serigne mara cissé mu nek lo xamni tamit fo ma ñëwaat tamit ci walu diko dox ci askan wi euh, gis nañ tamit li nga xamni modi boutique yi mhm. euh, boutique yi tamit serigne mara cissé askan wi tam diko rafetlu mom mhm. tamit lan mo la ko tan lo tamit ba tax ni boutique yi nga nekkat fofu ma jégalal ko askan wi lu ko waral fu mu joggé wallahi fu mu joggé moy de sem ño xamni du du mané man rek ka len doy waye lepp lu bay ko ci man duñ ko tollo leg lenen te du ñëpp dëkkunu géejewaay ñëpp mënunoo tëba tëb rek jóg loola tax fa tabarak laa nu seet yoo xam ne luy jariñ doomu aadama la nu tas ko pour fu ko waay itteewoo rek te ne si barab boobu boo fa demee mën koy am loolooy waral nga déggan ko njëkkan ko fii la njëkkoon a ne si daara ji mm-hmm. nu mujj ko yaatal ba génne ko mu ne en face buntu lycée Seydina mu Laye mujj dem ba point un mm-hmm. ku fa ku ñu dëkkee côté yooyu yëpp nu man fay dem si lu nu itteewu niki noonu Tëngéej mm-hmm. suñu jigéen Adja Aram fi laa nga xam ne depuis 2008 suñu wëllëre la nekkal nu fa moom it mu dem ba yaatal euh, boole si Mouhamadou Diop di nek ci rond point route nationale bi fa tabarakalaa non la demé ba Mbour Saly Carrefour nga xamné ne fa tabarakalaa nak nu fa dara dara yi Wadduha non la demé ba visi bu ñu mujjé taxawal muy Kër Massar te suñu jigéen soxna Jaara Mbodj nek fa suñu yàlla kàttanee incha allah muy parcel muy Padoua muy wakam barab yooyu yëpp yéene nañ taxawal fa boutique Wadduha ba nga xam ne ki nga xam ne mara rek ko doy wala bokk na sa ña ko doy mm-hmm. fa tabaraka la lépp luy itteem bu dee tawatu yaram la su fa demee mu mën fa fekk Eh, lu lu ko jariñ su dee fa tabarakalaa lu ko dugg la mu bëgg a tàggoo moom ndax am na loo xam ne bii moonu ubbil boutique yi te muy cuuraay nga xam ne duma fàtte benn soxna jamono yi ma koy doog a tàmbali mu ñëw fi na mu ah sëriñ bi cuuraay yi xaw ma lu tax nga def ko waaye dina la dina la dàqali nit de ma ne ko waaye ne leen jariñ rek mu ne ma sëñ bi cuuraay bi li si ne def am solo de waaye ko ne leen jariñ te fa tabarakalaa li ñu wax eh, kayfiyat mm-hmm. wala nit duñu wax bagage sax ndax li loolu li ëpp bagage mm-hmm. mooy mooy yóbbu boppam mm-hmm. mooy jaay boppam waaye fa la sañ naa ne cuuraay bi mm-hmm. waxuma la Sénégal waaye fu bëree bëri tukki na fa ndax njariñ goo xam ne nit ñi na ko fay ni nga ko siy gis fa la dama fàtte mukk ki ma waxoon ne ma doomam daal saa yu tëddee guddi rek day am leen gënal yaa ma leen mënaloo Muhammadu Rasulullah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 نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك في والدك تنجوك تألاج مود سيزن يدغو أحمارا سيزن من الأندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسون بلات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 ودها يلا موجدين يور يور لا لبي لير الله جي محمد سيسي مارا اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعا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 وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا من جر سيدنا محمد يا من جر يا من من محمد رسول الله سلا يلا ما يبات بنيخ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 lam yoxlam mis loxi bika asalaamualeykum mbokki jullit yi asalaamualeykum mbokki auditeur u rajo RMD rajo municipal de Dakar mel ni mbokk yi saa suñ koy defee rek muy jotaayu Wadduha mu mel ni itam kàddu gaa ngi bàyyi ko fii ci rajo municipal de Dakar quatre-vingt-quinze point cinq di nuyuwaat bu baax a baax mboolem personnel wu rajo RMD ñu ngi leen nuyu bu baax a baax El Hadj Doudou Coulibaly ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit si wàllu xarale bi sëriñ Malick Sidibé di ko ñaanal tamit di leen ñaanal suñu borom doole leen defal tawféex mbokk ñun la ñu ubbee jotaayu Wadduha mbokk yi mu mel ni tey ñoo ngi ànd ak euh, El Hadji si se ñun di ko santaat bu baax a baax a baax ci jotaay bi nga xam ni saa su ne itam daanaka dina ko may li nga xam ne moo di askan wi mboolem auditeur rajo RMD rajo municipal de Dakar. ñu di ko ñaanal buur bi subhaanahu wa taala doole ko kàttanal doole ko doole ko defal tawfiq ak taysiir doole ko defal najaax defal ko sax daaree ni ki barke yonent bii mu yàgg lool di gunge di ñu gunge itam ci jotaay bi nga xam ni ku ci nekk nga koy bàyyi xel naam sax ñi nga xam ni bokkuñu sax ak ñun yoon dañ koy rafetlu waaye tamit di ko bàyyi xel lool ñu di ko ci ñaanal sunu borom kàttanal ko. ñu ngi nuyu mbooleem nag ñi nga xam ni mbokk yi moo na mbooleem euh, ñi nga xam ne moo di euh, aju ci kër gi di euh, kër gi nga xam ne moo di Wadduha Wadduha solidarité ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di giital itam moom it ci nuyoo bi soxna Adja Aram Ndiaye présidente ñu ngi koy nuyu ak mboolem ñi nga xam ni ñoom ngi bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su nekk ci waxtu yi Euh, mu mel ni àllarba bu jot vingt deux heures jàpp zéro heure mbokk yi mooy jotaay bi nga xam ni saa su ne euh, dañ ci mën a euh, ànd ak yéen ngir rek askan gi mën a daal di jariñu wala tamit daal di gindeeku bu baax a baax a baax mu mel ni rek noonu la ñu ubbee jotaay bi muy jotaay tey nag boo xam ni bu am am solo la muy jotaayu njariñ tey muy jotaay bi nga xam ni jotaayu mbégte. ñu di santaat bu baax a baax El moo di Cissé mi nga xam ni tabarkàlla tey tey ñëpp ñu ngi àndandoo mbégte yàgg nañ ko yàgg nañu am ci moom mbégte rawatina nag tey jotaay bi nga xam ne tey dafa bàyyi léppam ngir mën a ñun ànd ak ñun ci jotaay bi jotaay bi nag muy xew-xew bi nga xam ni dañ ci mën a waxtaan tamit di ci laabi biir waaye tamit siyaarante ci kanam tuuti euh, muy li nga xam ni hmm. muy juróomeelu ponk ak lislaam incha allahu ci kàddu ci kàddu euh, kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala euh, dina ko fas yéene rek defi muy makkatal mukaram ziyaari ji sayyiduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam képp ku ko dégg itam sa xol du def rek lu dul sedd ci lool di ko ñaanal yàlla sunu borom tabaraka wa taala yóbbu ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye tamit dell si ko ci alhamdulilahi rabil alamin ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ngi aji mu mel ni balaa ñu def dara dañ yëkkati kàddu gi nga xam ni daal di koy jox mi nga xam ni borom waxtu bi muy jotaay wadduha bu waxtu bi jotee xel yëpp day delluwaat ci moom di ñaan suñu borom kàttanal ko El Hadji Modou Cissé balaa ñoo def dara rek ñu ngi lay jox kàddu gi ak mbégte gu rëy nag ndax daanaka cant gi ñu la war a sant sax ak mbégte gi ñu àndal lott na ci sunu kàddu ñu yëkkati ko xanaa rek di la jox kàddu gi الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من السر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول الحمد لله الحمد لله سبحانك لا حلم لنا إلا ما حلمتنا <coughs> وعليكم السلام ورحمة الله sëñ Mouhamadul Amine Muntaxa nu ngi lay fay nuyoo nu ngi jokk ci seen nuyoo boobu di nuyu senegal gépp comme nanu aadawoo di koy def nuy ñaan fépp fu kaddu àgg nu jàng fatiha ak la jàppandi si xul wallaahu ahad def ko xaddiyaay sallallahu alayhi wa sallam waaye def ko xaddiyaay bépp néew boo xam ne ma nga barsaq fa tabarakallah di ñaanal suñuy kilifay diine di ñaan yàlla yokk guddal seen fan lool waaye yàlla yokk wéral seeni cër di ñaanal suñuy kilifay aada di ñaan yàlla ku si nekk la la yàlla dénk nga war koy doxal yàlla kàttanal la ba nga mën koy matal di seet way tawat yëpp comme na aada woo di koy def hmm. ndax ñu bëri dañ na ma macha allah wadduha day dalal seen xel kon nu ngi ñaan fu way tawat nekk yàlla yónnee ko sifa ya si barke allahu safi yàlla saafara tawat yef tabarakallah ya yàlla woyofal yaram yi muy tawatu fisik, waaye di tawatu poos tamit ndax dina di wax ne e, kaadal faqr an yakunu kufra hmm. nu ne xawoon tuut rek ñàkk ku koy def rek nga weddi hmm. fa tabarakallah kon nu ngi ñaan yàlla Eh, day def si poos yi dara fa tabarakalaa xel yi gën di dal ba ku si nekk lay sa yéene eh, si sa njaboot ak lay say procès yoo xam ne fa tabarakalaa yu lay dimbale la mhm. yàlla kàttanal la ba lépp mën a mat ñi yàlla nattu ñu nekk si prison yi ñoom it macha allah yàlla yónnee leen ixlaas ñi nga xam ne danoo juum dugg fa ak ñanu juum si ñoom ñëpp yàlla ñëw ak ixlaas ba nu moom seen bopp ndax dina di wax ne barabu nattuwaay la mhm. ñaari nit dana fay nekk te amaana bu newoon si biti lu gën a diis loolu fuuf mën na koy dal. Eh, fu tabaarakalaal xam nga ki nga xam ne génn na rek wax yaasubillah. Mhm. dajanteeg oto mu laal ko bakkanam yem fa. kooku ku ko deexoon ne ko nu tëj six mois nga génn amaana day tànn nekkoon na dem tëdd foofu. bu jeexee mu ñëw continuer activité kon jaam lépp lu ko yàlla teg rek na ko sant na ko gërëm. te ñaan tamit te ñaan ndax nanu koy waxee rek borom bi nga xam ne mooy lépp. Mm-hmm. yor jamono di koy doxal. fi tabarakalaat moo ne day bëgg lool jaam di koy ñaan. moo nu dig ne sunu ko ñaanee dana nu may. Mm-hmm. kon jaam toujours nay deexanteeg boromam di koy ñaan yàlla di koy ñaan mucc di koy ñaan yokk waaye di koy ñaan tamit fi tabarakalaat muy sax si li ma nekk Mouhamadul Amine di nuyu Sénégal gépp euh, rawatina sunuy njabootu bopp muy njabootu Wadduha mm-hmm. defe naa wax nga ko di nuyu kër gi di 95.5 euh, radio municipal de Dakar mm-hmm. di si jiital kilifa gi di ñaan yàlla yokkal ko ndëgër laay ak ñi fi yëngatoo ñëpp fa tabarakallah yàlla kër gi Eh, fa tabarakalaa ba xéewal ya gën a bari lool fa tabarakalaa si rajo municipal de Dakar. Mm, di siyaara ñu fi nekk ñëpp. tey def émission yu mel ni kii yi nuy def xam naa boog danañ si jiital koo xam ne sunu soppe la sunu mm-hmm. référence la di Cheikh Ahmed Tidiane Niang. Mm-hmm. fa tabarakalaa nu koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal yàlla di sàkku ñaanam tamit. di nuyu fa képp koo xam ne yaa ngi si daaray taxaa. ñu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal waaye di sàkku sa ñaan. di sant bu baax euh, sunu technicien bi nga xam ne moom la ñuy jàkkaar loolu àllarba bu nekk muy sëñ Malick Sidibé si itte itte yi nga xam ne moom lay am si émission bi. Mm-hmm. ak bu rediffusion war a amee ak yooyu yëpp tubaarakalaa itte ji mu koy jox. ñu ngi koy ñaanal yàlla yokkal ko ndëgër laay di bàllu ak ñëpp si xew-xew korite bi jàll mhm. ndax defe naa bu baax léegi jotuguñu am direct di leen si jéggalu nag itte yi la rek fi tabarakallah yenn saa yi yaa nga xalwa mhm. yenn saa yi it te mën na lay ja dab yoo xam ne bii nga def direct te xaw nay jafe boole kook weer yi passé fa tabarakala nu nekkoon si la ñuy tuddee campagne. Mhm. danaa ni wax campagne la wala yónni ma kon ñi nga xam ne bi ñëpp na ma ko doon waxee rek. na nga doon sàkk nu la ñu yónni ba nu yónni leen. ñoom ñëpp tabarakala yal na yàlla may leen dëgër laay. ba ña leen yónni du nu rus. te mooy képp koo xam ne bokk nga si 165 députés yi. Mhm. Sénégal doon 14 millions d' habitants nu bool boole la sa ñanu tànn. Mhm. si 165 ñi nga xam nooy contrôler état loolu sas bu rëy rëy rëy la kon nag leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla yokk leen dëgër laay ba lay seen yéene nu man koy nu man koy matal fa tabarak laa di ñaan mbokk yëpp it nu fàttali ko sunu wëllëre mhm. sunu xarit nga xam ne moom la yàlla njëkk dogal bi mu fi njëkk ñëw nu daan jàkkaarloo muy alxaaji Alioune Dione yàlla def le vingt sept juillet bi passé moom la am at bi mu mhm. dëddoo muy ñaan ñu ñëpp beesal ñaan sa moom yàlla beesal yërmandeem waaye yàlla beesal njëggalam waaye njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg leen loxo yàlla sàmm leen yàlla ar leen di nuyu njabootu Wadduha comme ni nga ko waxee soxna Adja Aram Njaay bu Tëngéej mhm. mi ngi koy nuyu fa la di koy jox mu séddale nu ñëpp nuyo bi e, fa tabarakallah ñi bokk ci association bi yëpp waaye di nuyu ñi nga xam ne bii nooy nuy jàppale si liggéey bi muy mm-hmm. buti bu Wadduha yi mm-hmm. moo xam bu buntu lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay moo xam Point E moo xam Tëngéej moo xam Kër masaar moo xam Mbuur mm-hmm. fépp fu waay nekk fa tabarakallah te di jàpp si liggéey Wadduha ñu ngi lay nuyu di lay siyaara di lay ñaanal sunu xel dem si sunu mag sunu wëllëre di alxaaji xaadim rasul Guèye ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal ba fa tabarakala ni ñu ko waxee tey émission bi nu jéggaluwaat bu baax si tardement bi mhm. yàlla dafa def nu nekkoon say itte itte yoo xam ne bi ba nuy pare xawoon nay dix heures xawoon nay jege. Mhm. waaye ni ma ko waxee woon Mouhamadul Amin rek ne tey mu wax dëgg yàlla. yabbu ma mukk samay auditeurs. ba di leen bàyyee bàyyee ak rediffusion. wallaay ndeysaan nu mu mën a rek donte ba trente minutes la. dinañ mhm. ko wettali konte ak ñoom. wallaay saafonteeg ñoom baalanteeg ñoom ak. ndax ni ma ko waxee fa laa yàlla si dogalam dafa dogal ren nu yéene xaj màkka mhm. motal sunu juróomeelu ponk islaam muy teranga bu xamne bi teranga bu jara sant yalla lay def tabarakalaa na ci sant yalla bu baax di ci balu ñepp ak mhm. di ci sakku ñaanu ñepp it mahamadul amin lolu mo nekkon nuyo bi xamna naa suñu demee ba mini ju neew rek mhm. danañ ubi yoon bi bu ko defé nu mëna li contact ñun bokk ñun émission bi tamit jërëjëf Modou Cissé muy kaddu yam solo tabarkalla ni mako waxé rek de ngeen Eh, ndax eh, ni ma ko waxee tamit muy kër gi nga xam ni muy njaboot ha eh, ku ci nekk rek mu ngi doon ba kàddu gi xawee rek ni wàcc ku ci nekk da ngay xam ak yëg-yëg ak mbégte gi nga xam ni moom la àndal ci biir xolam ak yéene mi itam tabarkàlla ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a tamit di nuy wàttal ni ma ko fi mu ko daanelee noonu am na solo lool mooy ñi nga xam ni saa su ne itam ñu ngi jàpp ci wàllu liggéey bi mboolem personnel bi nga xam ni ñu ngi ci chaise bi nga xam ni mooy en face lycée maam Serigne Omar Diallo Lo nu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax soxna Badiane ak hmm, mboolem soxna Babacar Cissé Babacar Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu Aline Gadiaga ñoom hmm. ñoo wax fa dëgg yàlla gis nañu ni ñuy taxawoo ci liggéey bi eh, di leen ñaanal yàlla yal na yàlla sa borom bi dafa leen yokkute eh, waaye tamit di nuyuwaat boutique bi nga xam boutique yi nga xam ni ñu ngi tamit en face eh, lycée Mame Limamou Laye bi mooy siège bi foofu yaakaar naa ni tam gis ngeen ni tam saa su ne ñoom ni ngi jàppee ci liggéey bi bi nekk diwaanu point E boutique point E bi ñoom ñu leen nuyu bu baax a baax a baax a baax ñoom it di leen sant ci diwaanu Tëngéej ah ak fi nga xam ne diwaanu Kër Massar. waaye tamit euh, euh, boori euh, Sali Carrefour foofu tamit tamit diwaanu Njaareem Jurbel mu mel ni tam incha allahu noonu lañ ko rek bëgg a yaatale fépp rek fi nga xam ni ci mboolem fukki régions yi bëgg nañu fépp foo xamante ne rek ni doomu aadama bi jug na wala itam am yitteem rek wax dëgg yàlla bu mënul yegg si fii ci diwaanu Ndakaaru ci siège bi boo taxawee foofu rek mbir mi dina la mën a daal yomb bu baax a baax a baax a baax kon nag mbokk yi noonu la rek di leen fàttali nag site bi site bi nga xam ni El Hadji si yéen ñi ko yittewoo rek site bi nekk loo xam ne lu yaatu la officiel la fépp rek foo nekk ci àdduna bi soo tàppee ñetti w point wadduha point org ñetti w point wadduha point org rek da nga am lépp loo soxla ci information ci El Hadji euh, Modou euh, Cissé mu mel ni rek ni mbokk yi loolu mooy xam ni ak ziarante tey dégg ngeen tey mënu doon rek bañ a ñàkk rek ñu teew ngir rek euh, ñu ni ñu koy waxte rek laabe biir tam ànd ak li nga xam ne moo di auditeurs yi nga xam ne saa su ne ci waxtu bi dañuy bàyyi xel numéro téléphone yi rek ci kanam tuuti rek ni ñu ko waxee rek. incha allah rek mu mel ni numéro fixe bi rek fixe bi mu ngi jàll tabarkàlla mu mel ni wax dëgg yàlla taxaw nañ ci bu baax a baax yéen ñi nga xam ne rek ba ngeen dugg rek ngeen waajal numéro yi bi ngeen war a mën a jokk ñun rek fii ci rajo RMD rajo municipal de Dakar 33 la 889 83 30 33 889 83 30 mooy li nga xam ne rek ni mooy numéro bi nga xam ne ku jaar ci yoon wi rek daa nga mën a dugg rek ziaranteeg kilifa gi muy El Hadji Modou Cissé tabarkàlla incha allah mu mel ni rek tey moom jotaayu spécial bi nga xam ni ziarante mu nekk loo xam ne lu am am solo la El Hadji Modou mu nekk loo xam ni solo lool tamit ni ko waxee rek tamit ñu nuyuwaat mboolem soppe El Hadji Modou Cissé ñëpp ci biir lañu gis nañu El Hadji Modou Cissé soppe yi carte de membre yi tamit loolu tamit gis nañu niñ ci taxawee ñoom it ñu ngi ci def ay jéego jéego yu ama am solo mhm. ñoom it ñu ngi leen di sant bu bu baax a baax ni ma ko waxee El Hadj Modou Cissé di xaritu njaboot gi waaye tamit di xaritu ñi nga xam ne adduna bi laay wax ñu di ko sant ci wàllu solidarité tamit di ngeen gis saa su ne mhm. bu dul dara tam gis nañ ci wàllu solidarité ne mu ngi koy taxawoo mu nekk loo xam ne wax fa dëgg yàlla lu lu lu lu yaatu yaatu la El Hadj Mara Cissé ñu di ko sant bu baax a baax ci eh, taxawaay bile El Hadj Mara mu kon bu fekkee eh, ni rek lu war a eh, li nga xam ne moo di Euh, téléphone yi wala ilaa bu amuloo ci yokk. incha allah comme ni nga ko waxee rek euh, muy doon émission boo xam ne émission siyaarante la émission ballonte ak fa tabarakallah comme noonu nga ko waxee si doxa ma si sant yàlla bu baax ma si nga ma laaj lan moo indi doxaa mhm. ma ne yàlla moo nu ko tànnal ndax dañu si sàkku barkeb wala sa fa yoxti karab bu ko fatarda fa mhm. tabarakallah yàlla def depuis nu def émission muy doxaa yàlla def tamit mu néew lool nga euh, dem dajeeg mbooloo te du ñàkk ñu la si wax ne euh, ñàkk lu nu jariñoo si doxaa moo xam dañ ko déglu si rajo wala dañ ko dafa am lu nu barkeeloo si wadduha point org loolu nu si sant bu baax mm-hmm. euh, si ñi nga xam ne noo si jàpp mm-hmm. depuis jëlal waaw mu mel ni eh, mu mel ni rek eh, mbokk yi mën ngeen rek tàmbale daanaka ardu du tey tamit ñu ngi ànd ak ci waxtaan bi eh, ak El Hadji Mara Cissé ah di leen fàtte rek numéro téléphone bi rek bamtuwaat ko 33 <laughs> la 889 83 30 33 889 83 30 loolu mooy numéro rajo RMD radio municipal de Dakar mel ni am na euh, mbokk yi tàmbalee ardu ci jotaay bi bu fekkee rek euh, yegg si nañ rek mel ni mbokk am na mbokk mi nekk ci ligne bi rek euh, mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mhm, alhamdulilah. waaw sëñ Mara. waaw Adja. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yàlla na yàlla nangu tabarkel. di la ñaanal yàlla nga dem te ñëwal amin amin amin soxna. waaw kontaan nañ ci doom bi bu baax. jërëjëf jërëjëf yal yàlla barkeel la. waaw boo demee ñu fàtte ñaar. <laughs> incha allah incha allah alhamdulilah. jërëjëf Adja jërëjëf euh, yàlla fay soxna soosu ci ligne bi ñu di ko santaat bu baax a baax mu mel ni rek xëy na tur bi dañ ko gën a mën a yaatalaat tawarkal am na solo euh, kon nag di leen fàtte rek mën ngeen ardu 33 889 83 30 mooy euh, numéro rajo municipal de Dakar rajo RMD seen jotaay Wadduha boo leen si jaaree rek incha allah rek daa ngeen mën a tàbbi ci jotaay bi mu fàttali tamit tey it tey jii la mercredi 9 di leen ko fàttali ah mercredi 9 li nga xam ne moo di. li nga xam ne moo di août 9 août 2017 di leen xamal rek ni ñu ngi en direct fii ci rajo RMD rajo municipal de Dakar kon di leen fàttali rek ni jotaay bi en direct la El Hadji Mara Cissé mu mel ni tamit jaana saa su ne sunu jotaay dama koy faral di wax. Wadduha mu nekk li nga xam ne tabarkal la. jotaay bi yóbbu na fu ne. tur bi yéeg na fu ne tabarkal la. fi mu fu mu soqeekoo loolu tamit baax na saa su ne tam rawatina ci jotaay tey bii. faw ñu koy bamtuwaat. ñu wax euh, wax waxaat du bari wax waaye tamit day am na ñoo xam ne ñu ngi ciy soog a jot. <laughs> wallaay alhamdulilah Mouhamadul Amin muy lu ñuy sant yàlla ndax eh, si yàlla defee ngay def émission dem ba am si ay turando. Hmm. ay laay wax ndeysaan. fa tabaarakallaa jar nay sant yàlla. Hmm. si yàlla defee ngay def émission te ñu bëree bëri macha allah saa yu jotee nu koy wettali konte hmm. eh, di koy tasaare di koy partagé luy jara sant yàlla. am si wàllare bi yu nekk it fa tabarakallah mhm. eh, kon fa tabarakallah dañuy sant ñi nga xam ne eh, mën nañ ne si kàttanu yàlla mhm. si loxo yooyu lañ jaaroon ba duxa am xam naa dañu siy jiital sunu wëllëre mhm. eh, muy Mouhamadou Ndoye Bane borom thème de la semaine ndax fa tabarakallah suma jumul 2010 la amoon rajo boo xam ne si web bi la ne. ñu mhm. koy wax bitim réew. Mhm. point net. bi ma ko ak moom mu jox ma fa émission. Mhm. Euh, lan chaque alxames. ma war fa nekk vingt deux heures ba deux heures du matin. si la ma boole woon ak jëmm ju baax muy Abdoulahi Mbeng tabarakala nu doon émission yoo xam ne waa bitim réew noo si doon barkelu ndax rajo web la woon bi ma demee daf ma jox émission lan laay waxtaan ma ne ma waxtaan lu la neex. jël euh, mbokkam boole maa moom muy Abdoulaye Mbeng mm-hmm. man ak Abdoulaye Mbeng fi tabarakallah nu fay nekk ba euh, si dogalu yàlla. rajo bu ñuy wax siiwal FM. Mm-hmm. bi mu ubbee euh, Abdoulaye Mbeng bokk doon technicien ba fa jiitu. boole maag ki nu denkoon rajo ba muy Doudou Coulibaly. Mm-hmm. si li ñuy wax colère rek fi tabarakallah Eh, bi ma booleek Duudu yàlla si kattanam yàlla boole nu ma doon ku fa njëkk def émission si Siwel FM. Mhm. yàlla dogal na bu ma jumul le neuf la ubbi le onze maa fa njëkk a def émission direct mm, mhm. fa tabarak laa kolëre googu yi dem ba émission Duha xaw mu doon loo xam ne macha allah. Mhm. nit ñi nu ngi si doon lu fu nekk. si ndog si mbaaxu borom bit yàlla baaxe na jëmm ju baax muy xaadim rasul Guèye eh, ubbil ma site web mm-hmm. eh, fa tabarak la moom it ubbi ko ak yéene pas-pas mm-hmm. foofu lépp loo xam ne luy jariñ jullit la bu bëgg a jariñu si yoon yoo xam ne su fa jaare yàlla dimbale ko mm-hmm. si ay ñaan moo xam ay askar la moo xam ay nawafil la lépp loo xam ne luy jariñ doomu aadama la rek fi tabalaka la mu bàyyi ko si wadduha point org jël lépp loo xam ne émission la bu nu mas def wala yu si bëri mu def ko fa yennat si émission yoo xam ne yu nu mas def la si télé it mu def ko fa interview yi nu mas def si ay journaux it mu def ko fa mm-hmm. fa tabarakalaa def ko fa sur site boobu it fa tabarakalaa si mbaaxu yàlla yàlla def mu daj àddina ba mën na ne fu nekk si àddina turu doxaa a nga fa looloo dem ba yàlla def suñu xel ne comme ñu bëree bëri danoo bëgg a gëstu mhm. saa yoo defee émission ba par ñu bëri dinañ lay woo di lay laaj dama askar ba nga waxoon wala mhm. naafila ba nga waxoon mhm. wala nangam lan moo si gën no xalaat ne rafet wal don ne jaadu lool nu defar téere te mooy moo indi kitaabu duha bi nu ko xalaatee nu waxtaan seeg ñi nu si war a waxtaanal mm. abdoulahi mbeng am kum ma booleel abdourahman fi mm-hmm. tabarakallah di professeur université si ahmed tidiane Gajega moom mi mm-hmm. jàppale woon ma si lool nu ba nu waxtaanee ba pare nu jàpp ne sénégal du ñëpp alxuraan la nu jàng te bëri na lool ñoo xam ne bëgg na noo xam waaye amaana euh, fu noo xamee mën na leen a jafe si kàttanu yàlla yàlla dimbale nu jot bëriwul. Mhm. waaye nuy def chaque semaine rek nu am lu nu dajale. yóbbul ko kanu koy bindal. Mhm. kooku it fa tabarakalaa bind su paree nu corrigé mu dugal si ordinateur ba jël na ñaari at. moom macha allah mu tiire lépp ñëw jox ma ne ma la ma doon liggéey mu ngi nii. gannaaw loolu si avant loolu yàlla xamalante woon ma ak euh, alxaji xaadim rasul bi ma doon wax xaadim rasul gay bi ma demee jox ko ko ne lii laa bëgg a génn mooy kitaabu doxa mhm. ma bàyyee ko bi mu ko xoolee ba xëy na ma lii fa tabarakallah la sa nekk dafa rëy la fa nekk si njariñ ak yiw lii dafa war a dem fu nekk sa àddina bi te bokk na si la koy gën a wane mooy taaral gi. Mm-hmm. moom it macha allah mu jël kitaabu Duha def si yéeneem. def si yéeneem ba mu mel na mu war a mel fa tabarakallah ba si kàttun yàlla yàlla dogal lépp matandi. Mm-hmm. ba si 14 septembre 2014. 2014 mm-hmm. tabarakallah si leen defoon cérémonie dédicace bi. mu doonoon bés bu rëy rëy boo xam ne bokk na si li ñu gën a neex. kitaabu Duha génn it macha allah ñëpp gis seen bopp. ndax dinaa di wax ne mënoon nay neex borom bi nu def kitaabu Duha ñaari exemplaire rek génn si. waaye yàlla def na fu ne si àddina bi. ndax bokk na sa la ñaanoon mooy yal nu yàlla kattanal mu daj àddina. Mm-hmm. te si kattanu yàlla ak ndimbalam yàlla def na fu ne cinq continent yëpp kitaabu Duha ma nga foofu. mën na ne loolu it tabarak laa bokk na si li nu gën a dimbale. alhamdulilah yàlla baaxee nu si ay nit ñu baax ñu bëgg lu baax it fa tabarak laa loolu bokk na lenn si fàttaliku yi nga xam ne bi mën na moom laa lay wax. wallaahi si lanu xalaat. si boutique yi. jàpp ne daan xëy du joxe quarante ticket. day xaw di metti nu mujj la wàññi visite yi def ko trent xalaat ne am na yu bëree bëri yoo xam ne nit dina ko fi ut si te mën nañ koy defar bàyyi ko si barab. Mhm. nga xam ne su ko soxlaa amin ga dana gën a yomb. looloo waraloon fi tabarakallah boutique Doxa nu tàmbali woon ko si géejawaay en face bantu lycée bi e, nekk noonu point un nu yaatal ko ba point un fi tabarakallah nga xam ne ñi dëkkee foofu yëpp. lu nu soxla rek te muy jàppandi si boutique yi suñ fa demee mën nañ koy am. sunu jigéen Adja Arame jàppale na si bu baax. tabarakala bu tëngeej. Mhm. moom it macha allah ak doomam Mouhamed Diop. jàpp si bu baax it am si itteeg yéen it moom macha allah. Mhm. ñoom it ñu leen di ñaanal bu baax yàlla yokkal leen di xéwal. amiin yaa rabbal aalamiin tabarakala sunu jigéen eh, soxna Jaara Mbooj. Mhm. Kër Masaar it ñëw jàpp si. nga xam na ñi dëkkee foofu yëpp tabarakala eh, yëmbal ak Kër Masaar yëpp fa tabarakala eh, jokkuwaay boobu di gën di jàppande si ñoom. ni ma la ko waxee sunu jigen soxna madame kah bu Mbour. Mbour fa mom moom ñu japp si. Mhm. nekkal na si Sali Carrefour. nonu lañ yene it noonu lañ yene it fo xamne ne nañ ne eh, su fa nekké dina doon dimbal. dimbal sa ña nekkee gox ba ba. Mhm. kat nu ba lepp man di mat. jërëjëf loolu mo eh, lu nu mën a la tuuti. si allah si doha jërëjëf comme nu di ñaan yalla ndax dina yàgg naa ko wax ne bokk na si sunuy nisër bokk na si sunuy procès fa tabarakallah daaray doxa mm-hmm. te mooy barab boo xam ne eh, dañu fay sàkkooy xam-xam képp ku gëstu itteel rek danañ ay jàngalekat yu fa nekk képp ku bëgg sa doom jàngit fa tabarakallah dina fay mën a jànge fa tabarakallah loolu yi bokk na sunuy yéene ni ñaan yàlla ñëpp yokkal na si ñaan ban mën koy matal waaye sant bu baax la di def ndax eh, amunu fayu eh, auditeur rek auditrice si doxaay ndax yeggeeg cofeel geeg jàpp gi mhm. ba lépp loo xam bi moom nga taxawal rek nu jàpp si ba macha allah ba lépp àgg loolu dañ si sant yàlla bu baax Amin jërëjëf El Hadj Mara Cissé ci leeral boobu ci li nga xam ne da ngeen waddu xaali ko waral tam mu nekk loo xam ne am na solo waaye tamit di leen fàtte tamit ginnaaw ñu ngi waxtaan waaye tam muy bés bi nga xam ne tey ni ma ko waxee tey muy mercredi 9 août 2017 22h jàpp 0h muy jotaay wadduxa di nga xam ni saa su ne ci waxtu bi El Mara Cissé rek dina leen koy faral rek di amal fi kii rajo municipal de Dakar 95 point 5 di leen fàttali bu mu jokko bi ngeen rek participer seen yaarante ak euh, El Hadji euh, Mara Cissé mu ne dégg ngeen tey bu ubbi bi mu nekk mbégte gi nga xam ne tamit mooy li nga xam ni wàllum euh, tàggatoo gi nga xam ne mboolem auditeur ak mboolem soppe itam waral itam teewaay bi nekk loo xam ne lu am am solo la di leen fàttali numéro téléphone yi ngeen mën a rek participer ci jotaay bi mën ngeen ci dugg rek numéro bi 33 la 889 83 30 33 889 83. 30 loolu mooy numéro bi incha allah rek boo leen ci yaree incha allah euh, incha allah sëriñ Malick euh, Sidibé dina leen mën a rek tàbbil ci jotaay bi euh, El Hadj Mara Cissé ñu daal di ñëw ci ginnaaw jotaay Wadduha ba nga ko tàmbalee ba léegi. ana li nga xam ni boo ko fàttalikoo li la ci gën li nga xam ni mark gën la ci neex lool. Mm-hmm. ak li nga xam ne wax fa dëgg yàlla euh, xaw na daal wax fa dëgg yàlla euh, xaw la daal di la ci bàyyiloo xel la nga xam ne boo ko fàttalikoo rek euh, maanaam li ñuy wax rek ne tristesse day daal di am rek nga xaw daal ñeewantal ci daal. wallaay wallaay xam naa duy ñàkk ndax ma macha allah eh, eh, dina yàgg naa koy wax ne bokk na si li nu si gën a neex. <laughs> Eh, muy loo xam ne jamono yi la woon nawet eh, du doon lu nuy gaaw a fàtte eh, mel na ni am na ku yegg mel ni am na ku nekk ligne bi 33 889 83 30 ki ci ligne bi salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam wa rahmatulah. kay alhamdulilah. yéen yàlla yaram. waaw yaram. man la Moustapha Diouf Malika. ah Diouf sëñ Moustapha Diouf. ñu ngi jërëjëf yal na yàlla nangu tabarkeel. yàlla yokk xiwal ànd ak wér. amiin amiin Diouf Diouf. te ñaanal bu wér a wér bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diouf. yàlla yokk man di ak. amiin amiin amiin amiin. laa lay ñaanal. jërëjëf jërëjëf. bëgg naa nag bëri semaine bu paase dama doon dégg nga wax doon wax ci li ilaa fi xuraysin te a ne rëcc. waaw waaw li ilaa fi xuraysin. waaw man daal loolu boo si rëccoon. maanaam ñaan yi nga xam ne maanaam boo jullee après da koy wax. waaw waaw baax na incha allah dinaa si ñëw. ak yëpp kii maa ngi lay bëgg baax na. jërëjëf yal na yàlla barkeel la Diouf. yàlla yokk xéwal ànd ak amiin amiin Diouf Diouf maa ngi déglu émission bi. parce que lu dee ma gënal moom moo kii. <laughs> jërëjëf jërëjëf. xéwal waa kay incha allah jërëjëf. baax na yàlla yàlla jërëjëf euh, sëñ Moustapha Diouf. tabarkàlla ci diwaanu Malika. di ko santaat di nuyu waale sunu wala rek Moustapha Diouf sama séeréer. waaw mooy sax Moustapha Diouf <laughs> euh, borom buraaki bu neex. wallaay wallaay baax a baax tabarkàlla buraaki Touba nu ngi koy nuyu bu baax tabarkàlla. 33 889 83 30 mu mel ni am na mbokk itam bu nekkaat ci ligne bi ak moom salaamaaleykum. waa kay ku baax kay waaye nga rajo bi rek eh, ngir déggante bi mën a neex rek. waaw kay waa kay ku baax. naka sant bu baax alhamdulilah. waaw eh, alhamdulilah sëñ Modou. sëñ Modou Guèye. waaw. <laughs> Guèye dañu lay ziar. yal na yàlla nangu tabarkel gay. maa tey am nga bi. dama ko tey dama ko dama ko war a nag dafa mel ni tey dafa retard da ngay retard tey seen muur. waaw xam naa retard Thiénaba. ana kii eh, Habibou gëj nga ko dégg. ah waaw xaw nañu koy dégg. Eh, eh, Guèye ah, jërëjëf Guèye. jërëjëf Guèye ngi jégalu yu bëri yi. Ah, amul solo noonu la jamono moo tëddee noonu ak <laughs> mu ni kër gi kër gi kër si wàllu wàllu wat solo. wallaay wallaay ah, boo xoolee léegi gis nga message bi xanaa jàll na ci message bi xaw ma yaa ngi koy bàyyi kër gi. lépp xalaatam la <laughs> tawarkal. waaw waaw <laughs> jërëjëf Gaye moom yaakaar naa sax comme ni ñu koy waxee rek doon tey yëpp daal yëpp nag bànneex la dugg daal bëgg yàlla jërëjëf Gaye Gaye di la ñaanal bu baax a baax a baax ci yoon bi euh, yàlla la yàlla yóbbu si jàmm amin amin Gaye si jàmm nga sa jàmm amin gay. Euh, te yàlla nangal la lépp loo xam ne amin amin amin Gaye yàlla euh, dañu kontaan daal bu baax wallaay ndeysaan Gaye jërëjëf moom am sa fay te yaakaar naa lii rek la doon xaar soo tamit. wallaay gay jërëjëf eh, ku baax na wax dëgg yàlla te yaakaar naa tamit te tamit bàyyi na am da nga wax rek kii kii bi rek moom daanaka moom moom <laughs> yaa ngi doon àgg sax lañ wax daal. wallaay jërëjëf gay jëf yu baax ak wax ju baax ak wax dëgg yàlla. jërëjëf Jef, ku wees yow moom dara nga fee wax dëgg yàlla na ak kalimatu tayyiba moom ko wax dëgg masha Allah jërëjëf jërëjëf nañu am ndëkte bu baax a baax daal kon daal wax dëgg yàlla moom soo xool daal moom fees moom wallaay ndeysaan yàlla yàlla fay trop wax dëgg yàlla moom moom bànneex la indi daal mën naa ne daal boo wax léegi wax dëgg yàlla wallaay wallaay yàlla yàlla fay yàlla yàlla mottali lépp wallaay jërëjëf gay bu baax bu ñu gay gay gay ah sëñ Modou ñoo ngi jégg ci déedéet lépp taw feex la lépp taw feex la waaw nga jamono la loolu la am dégg xam nañ ko bu baax a baax a baax alhamdulilah xam nañ ko de yàlla yàlla gudd seeni fan amin amin gay aar yàlla sàmm leen amin gay amin amin amin yéen gay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku El lool wallaay wallaay eh, ku am itte mhm. am kóllëre. macha allah pas dëgër am pas pas bu dëgër tamit fa tabarakalaa bëgg lool lu baax. wallaahi ndeysaan. yàlla na yàlla lafal ko cat. alhamdulilah mi ne am na ko nekk. Eh. ligne bi ah kii ligne bi salaamaaleykum mbokk mi. salaamaaleykum. mel ni kooku xëy na mm-hmm. mu ngi ci ligne bi rek ñu ngi leen di xaarandi mbokk yi di leen wax rek 33 la 889 83 30 seen jotaay Wadduha tey euh, le 9 euh, août 2017 mel ni am na ku ne ci ligne bi mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. bisimilah. sax na. ok sàll sàll soxna Adama sàll sàll sàll nu ngi sant baax sàll sàll sàll sàll jërëjëf sàll sàll di kontaan sàll na ah, ay waay nu ngi jéggalu dama amoon itte ma war na doxi. waaw maa ngi si jéggalu bu baax sall. waaw kay Cissé jërëjëf. sall sall jërëjëf. dinañ jokkoo ëllëg si kàttanu yàlla. bu neexee yàlla balaa may ñëw dinaa la woo. incha allah sàll sàll. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna Adama. incha allah ma ne ko moom si kattanu yàlla lu yàggul dara. dina nu nekkal Padoa si kattanu borom. am na solo am na solo tabarkalla. donc am ittee macha allah. alhamdulilah kon soxna Adama Sall amin ya rabbal alamin 33 889 83 30 rajo municipal de Dakar seen jotaay Wadduha ak El Hadj Mara Cissé mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum mu mel ni uh, mu ngi ci mhm. ligne bi rek uh, mu mel ni nag uh, sëñ El Hadj Mara lu ñëpp soxla faw jafe-jafe léeg-léeg di am mhm. rek xëccoo bi ci ligne bi rek. Mhm. ñi xëy na du ñàkk léegi mu yegg si waat rek 33 889 83 30 salaamaaleykum. salaamaaleykum. mel ni kooku itam bismillah. mel ni kooku rëkk na nañ ko xaarandiwaat eh, ci eh, kanam mm-hmm. tuuti rek di leen xamal rek ni jotaay bi eh, ñu ci bare bëri itam ñu ngi koy bàyyiloo xel rek ni en direct la tey fii ki rajo municipal de Dakar quatre-vingt-quinze point cinq vingt-deux heures jàpp zéro heure ngeen ci ànd ak seen jotaay Wadduha ak El Hadji Mara Cissé mu mel ni rek mbokk maa ngi ci ligne bi rek asalaamaaleykum salaamaaleykum mu mel ni mhm. itam euh, dafa dog ci ligne bi rek euh, mu mel ni xëccoo bi foofu moo waral li ni mel El Hadji Mara Cissé ginnaaw rek euh, téléphone bi xam naa rek ku ñëw rek ñu àndaat ak moom mel ni ñu ngi ardu ci ligne bi. 33 889 83 30 bu fekkee rek mbokk moom rek yegsi na incha allah rek El Hadji sëñ Malick ñu dina ko dugal ah, dina ko dugal en direct mu mel nii rek bu jàppandi rek day ñu koy daal di jox mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bisimilah waaw sëñ bi ziar naa waay. alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla na nga tabarkeel. amiin sëñ Mara. sëñ Thierno Diouf. la. <laughs> neen def Diouf. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. yàlla na yokk bu baax. alhamdulilah Diouf Diouf. ñu ngi lay a baax. jërëjëf yal na yàlla nangu tabarkeel. ñaanal ñaanal baax. jërëjëf yal na ko yàlla boole. kanam ba ci kanam ak kanam ak kanam. ni yàlla may lay. amiin amiin amiin baaw defal la tawfiq amiin amiin amiin Diouf amiin bare bare bare ñu ngi lay ñaanal de wallaay jërëjëf jërëjëf sëñ Thierno ñu ngi lay ñaanal rek jërëjëf jërëjëf Diouf suñu borom yokk sa fan bu baax jërëjëf Diouf Diouf cuuraay yi séeréer yi naa jeexu fa cuuraay li gisoo ñu ngi may woo sax nekk fa nga ñëw naa ñu waat loolu lañ may wootee sax yàggul dara wallaay wallaay yal na yàlla barkeel ko macha allah am kolere la Thierno Diouf ma nekk ko am kolere macha allah sëñ Thierno Diouf moom ban ban ban diwaan la. ku am colère la waaye mu ngi yëngatoo fii Ndakaaru. waaye ku am colère macha allah yàlla na yàlla yokkal koy xewal. alhamdulilah cuuraay bi ñu ngi koy dégg moom cuuraay bi moom. wala wala wërtër ya, yi tabarkalla cuuraay siyaat ci nii yëpp moom ci boutique bi. di leen ko fàttali bàyyiloo xel bu baax a baax. mooy ay cuuraay yoo xam ne yu lay ubbi. fàttali wàllu ne garab wàcce yàlla def na jàppandi na alhamdulilah si boutique yi da nga ko am si kàttan yàlla alhamdulilah mhm. tabarkalla kon yaakaar naa loolu euh, daal dinay am solo tabarkalla di leen fàtt rek ni yéen a ngi wéy ba léegi rek euh, fii ci rajo municipal de Dakar quatre-vingt-quinze ah, di leen euh, fàttali rek yéen ñi nga xam ni muy tamit émission ziarante fii tey muy jotaay Wadduha 33 889 83 30 33 889 83 30 mooy rek bu mu jokkoo bi rek képp ku yegsi rek incha allah dañu ànd ak ak sëñ Malick Sidibé mu mel ni am na ko ci liñ nekk ci ligne bi السلام عليكم الحمد لله يانا يالا نانغو تباركل إيه، جريجف تام دغ لا دغ لا جريجف يحيى جريجف جريجف محمد الامين من لا يف من لا كيف اي باخ يرجف زياره تم تحت بين كده والله والله صاحب تيجان زياره من نور هذا نور وقت انت رجف يف بلا زياره والله والله جرجف جرجف امين وياك ان يعني يلا بارك الله يلا يبقى الله يخيول الحمد لله <laughs> nu ngi nuyu sunu collègue sëñ Kalidou Gaye. Kalidou waaye maa ngi nuyu nag sëñ Xaadim Ndiaye. fidèle si eh, ah waaw sëñ Xaadim sëñ Xaadim. ah balaa moo dal sama kaw. wala ko yàlla bu ma laaj parce que. tabarkàlla 33 889 83 mel ni mbokk mu ah, rekk na ci bi ah, di leen fàttali rek en direct la tey muy euh, euh, le 9 euh, le 9 mercredi 9 août 2017 rek di leen fàttali itam El Hadj Mara Cissé tey tey mu ngi fii tey ci jotaay Wadduha Moustapha waaye gis ngeen tamit wax fa dëgg yàlla di laaba biir ak euh, askan wi nga xam ne ñu bàyyi xel mu fas ne rek matali li nga xam ne moo di juróomeelu ponk ci lislaam muy euh, wàllu aj màkkatal mukaram incha allah ci kàttanu suñu borom waaye kam mu nekk mbégte goo xam ne wax fa dëgg yàlla mbooleem euh, auditeur mbooleem soppi yëpp ñu ànd nañ ci mbégte kon ñu ngi leen a xaarandi itam ci ligne bi ginnaaw suñuy ànd ak moom ci jotaay bi mhm. kon rek numéro téléphone bi rek ko xam naa ne bii moom ñoo ngi koy soogo rek xam naa du ci ñàkk am na ñoo xam ñoo ngi koy soogo dégg di leen fàtte 33 la mhm. 9 83 30 El Hadj Mara Cissé mel ni ginnaaw ñuy dox. mel ni tamit xam naa ni ku ñëw dinañ ànd ak moom mel ni laaju sëñ Moustapha Diouf tamit ñu bàyyil ko xel ci diwaanu Malika. ilaa fi xoroshin mu tamit mu nekk loo xam ne mu ëmb njëriñ lool. wallaahi wallaahi xam naa bu ma juumul fàttaliku ko naa ak ñëpp ne ku man saa yoo jullee rek nga jàng ko fukki yoon ak juróom. juróom. xaddi yàlla ko sallallahu alayhi wa sallam. nga doog a ñaan sa soxla. dañ lépp looy ñaan borom bi dana la ko sa gàntal loolu yoon bu am solo la fa tabarakallah saa yow jullee rek nga def ko fukk ak juróom mhm. xam yàlla ko sallallahu alayhi juróom ñaare it baax na na di nandal sa njaboot mhm. day tax mu jub mhm. te fa tabarakallah loolu luy jar di bàyyi xel la Mouhamadul Amin jërëjëf te mooy bu la yàlla dénkee njaboot mu jub nekk tànneef alhamdulilah eh, eh. mais ni am na ko ci ku ne ci ligne bi rek mel ni dogaat na ci ligne bi ni ma ko waxee rek ñuy jégg lu baax nag wàllu machine moo bindee lu ni mel xam naa nag ñu ngi xëccu ci ligne bi ku ci nekk da bëgg a fonte ak El Hadji Mara Cissé waaye tamit du ñàkk rek ci jotaay Wadduha rek nañu insister ndax lu ñëpp soxla rek ni ma koy waxee faw jafe-jafe daal di daal di am muy benn ligne bi nga xam ne rek mën ngeen ci jaar 33 la 889 83 30 33 889 83 30 sëñ Mara El Hadji Mara mu nekk loo xam ne Cissé am na solo lool li ilaa fi Quraysh moom li mu li mu li mu ëmb bari na lool wallaay wallaay muy lu bari lool ki si ut kiir laay wa amanoxum min xawfin loolu it macha allah secret bu rëy la si ki nga xam ne bii bëgg na yàlla may ko kiir laay li mu cent mille cent onze ba nga xam ne mooy tolloog laa taqaf moom la koy bind moom it fi tabarakallah bokk na si secret li la fi xurey si alhamdulilah tabarakallah mu nekk loo xam ni am na solo tabarakallah dégg ngeen yaakaar naa ni sëriñ Moustapha Diouf min joxin moom it ki nga xam ne bi macha allah bëgg na yàlla di koy yombalal lum sàqami waaw ndeysaan tamit lu am solo it si kàttanu yàlla su ko dee jëfandikoo yàlla mën na def du ñàkk mukk lu mu sàqami macha allah du ñàkk dépense tabarakallah 33 889 83 30 33 689 83 30 mu mel ni rek bi ah, ci ligne bi rek ah, incha allah rek xëy na rek ah, ñi nga xam ni rek bëgg nañoo tàbbi rek bu ñu ci jaaree rek dinañu rek daal di mën a ànd ak ñun ci jotaay bi nga xam ni moo di jotaayu Wadduha mu mel ni am na mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum salaam sëñ Moustapha. waaw ku baax ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar Mbaye Ka. ah sëñ Mbaye Ka Ka bisimilah. ñu ngi ziar Baye Mara. waaw sëñ Mbaye. papa ñu ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu tabarkel sëñ Ka na ngeen def. ñoo fi ñoo fi papa ñu ngi sant yàlla bu baax. gëj naa la gis tuuti mbaa jàmmalam. wallaay waaw dama xawoon dem mission na côté dama nekkoon Thiès ci biir àll bi moo taxoon. macha allah loolu xéewal la mbaa am naa goro léegi. waaw waaw xam naa ni waaw war nañu fa ñëw sax xam <laughs> ah, la yal na yàlla barkeel ko. wallaay wallaay di ci koor ma dama nekkoon mission. macha allah xéewal la xéewal la kaa yal na yokk. yàlla na yàgg kaa jërëjëf. wallaay dama dama génnoon nii ñoo jàpp fekk mu nekk en direct nii sax ma ne xaaral ma profité ak ma déggee mun taxaa mu ne da ngay waaj dem fële eh, aji. wallaay wallaay. wallaay mu nekk lu lu ñu rafetlu et puis lu ñu kontaan trop trop trop wallaay. wallaay wallaay wallaay. wallaay di la ñaanal rek su borom yóbbu la ci jàmm nga ñëwaat ci jàmm fekkaat njaboot ji ak ak ak ak mboole mu soppe tamit. amin amin ka jërëjëf ka. wallaay waaw en tout kontaan nañ trop ci yow te wallaay di la wax ni rek ni suñu suñu suñu yéene ak suñu suñu xol li mu ni muy nekkee ci yow sax beneen affaire la. wallaay ndeysaan wallaay wallaay xam nañ ko. di la ñaanal yàlla suñu borom taxawul lu baax parce que dañ ñu dañ ñu jàppale ci saayir ak ci baat yi ka jërëjëf jërëjëf ka parce que met met li ma li ma koy waxee rek du ma ko taay di wax metti woon na trop waaye tey ñu ngi sant yàlla jot sax pour ñu am ko c'est tout une problème macha allah yàlla na yokk yàlla na yokk loolu bu amee ginnaaw yàlla ak yonente bi da nga cee def aussi taxawaay bu am solo wallaay wallaay ka ka waaw moo tax daal vraiment amuñu amuñu amuñu amuñu lu dul kontaan ci yow te di la ñaanal suñu borom bàyyi la fi dama sa mission ci sa mission ci jaam ñi mooy ñoom ñëpp defaru comme ni nga koy waxee. te loolu objectif bi yëpp loolu la. alhamdulilah jërëjëf kontaan nañ trop papa te yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla taxaw. amiin amiin amiin ka ka ka kontaan naa trop bilaay walaay dama kontaan trop wallaahi. jërëjëf yàlla na yokk yàlla na yokk yàlla na yokk si kàttanu borom bi yàlla na yokk. yàlla na yàlla fay. amiin amiin amiin ka ka ka yàlla na yokk yàlla na yokk bu baax jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ka incha allah ci biir semaine bu fekkee ne am naa benn temps bu ndaw rek dinaa fexe bi ñëw ñëw ko. baax na incha allah baax na ka ka jërëjëf yàlla barkeel la jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ka ndeysaan mbay ka mhm, macha allah tabarkalla xol mu ngi waxee ak xol xol bu sedd mu ne ko yenn eh. ñàkk jot gi yokk ah, amin waaye amin yaa rabbal alamin <laughs> eh, eh, nekk mu nekk loo xam ne lu am solo la mhm. ni ma koy waxee rek tey mhm. bu ñu déggee tey El Hadji Mara Cissé tey wax fa dëgg yàlla war a li gi li nga xam ne moo di lu ponkam ci lislaam màkkatal mukaram wala aj xol foofu mu sedd ndax du euh, ni ma ko waxee kàddu gu sell su génnee ci xol bu sell rek lay tàbbi mhm. ndax fa am woo xam ne fa la leen di toll mhm. kon wax fa dëgg yàlla ñu di la santaat bu baax di la ñaanal yàlla suñu borom kàttanal lu wér El Hadj Mara Cissé amiin amiin euh, dara dara daraaximul kiis mhm. moom xëy na ni ma ko waxee saa su ne nekk na loo xam ni lu askan wi téew la euh, moom bëgg nañu xamaat tamit njariñam ndax loolu mhm. tamit foog nga baaxee ñu ko ndax man damay daw tuuti rek indaat tuuti njariñ bi barkeelu. <laughs> wallaay wallaay yal na yàlla def képp ku muy see wërsëg rek mu yomb waaw comme ni nga ko waxee dara ximul kiis e, tegtal la si ne macha allah ku yàlla dogal wala ku ko yàlla barkeelal. Mhm. dërëm mën na la yomb. te na ma doon wax rek e, julli toujours dafay war di ñaan sutura. Mhm. lu muy sutur la woo ngir lii maanaam gën a dëgër. ngir it fa tabarakallah eh, xel gën di dal mm-hmm. muy yoon boo xam ne bii yéene ko askan bépp moo tax kitaabu Wadduha mm-hmm. def nañ ko fa képp ko am kitaabu Duha rek alhamdulilah bu la soobee boo amee donga daara mën na la koy bindal su la ko bindalee nan koy defee yëpp def nañ ko sa mm-hmm. ki nga xam ne bii fa tabarakallah yàlla def na mu yittewoo ko su demee si boutique yi am na yoonu defar ba pare bàyyi ko fa du lenn lu dul ouverture euh, ubbeeku bu mag a mag xam nga Mohamed bu nu doon tukki man euh, bu nu doon dem mbuur maag yow. wallaay suñ bokkoy waruwaay yàgg yàgg ñun ñëpp mën nañoo àgg mbuur. wallaay dëgg la waaye gaawin ba nag si waruwaay ba lay doon. Ah, waaw dëgg dëgg. <coughs> nu man koy tuddee nag macha allah yoon bu gaaw lool macha allah si ubbi xéwal. muy eh, dara ximul kiis. Mm-hmm. Eh, nu ngi ñaan képp ku yàlla dogal nga. yittewoo ko rek muy sa wërsëg ba nga xam ne bi macha allah. Mhm. da nga am lu kawe sa njort. waaye lu nu def la livre nga xam ne ko am téere ba mën nga koy am. Mhm. waaye lu nu bind bàyyi fa la ngir ki nga xam ne bi macha allah amagul kitaabu duha wala ku ko bindal mën na ko jafe su fa demee mën na ko fay fekk. alhamdulilah. jërëjëf. jërëjëf El Hadj Mara Cissé mbokk yi ba léegi rek di leen fàttali rek ni seen jotaay saafonte tey la fii ci seen jotaay Wadduha di leen fàttali tey àllarba tey 9 août 2017 mel ni en direct ñoom ñi bàyyi xel ni ngeen xam ne tamit jotaay bi mu nekk jotaay bu yaatoo yaatu tey muy jotaay bi nga xam ne saafonte ak ku baax kile di El Hadj Mara Cissé ngir rek fas rek. Euh, waajal euh, li nga xam ne moo di aj màkkatal mu karam muy juróomeelu ponk lislaam bi nga xam ni incha allah dina ko matali ci kàttanu suñu borom euh, mu mel ni rek téléphone bi rek tamit ñoo ngi leen di xaarandi rek 33 889 83 30 33 889. 83. ñu ngi siyaare bu baax imaam Ñang imaam Ñang doon sama wëllëre doon ku am kóllëre. Eh, ma ne ko kóllëre la ñuy wax. dafa am solo te Mouhamed Ñang bokk na si samay kóllëre yoo mhm. xam ne ñuy yàgg la macha allah. alhamdulilah. Eh, di koy ñaanal yàlla yokkal koy xéewal eh, di sàkku ñaaw naam tamit imaam ña nga xam naa mu ngi dégg bàyyi xel wallaay wettali ko nañ fi ay yoon macha allah alhamdulilah ni ki noonu sunu wolere hmm. eh, Oustaz Mor bu RFM laa doon sama soppe di sama wolere maa ngi koy yàlla yokkal koy xéewal moom macha allah am na jotaay yu bari yoo xam ne jotoon naa ko def moom RFM alhamdulilah mu mel ni ki am na. ku yëglu ci ligne bi. 33 889 83 30 mooy numéro téléphone rajo RND yéen ñi bëgg a euh, tàbbi ci euh, jotaay bi 33 la 889 83 30 mel ni am na euh, mbokk mu nekk ci bi rek mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa baax ki ñu ngi lay ziar tur bi ak fay woote. am Touré maa ngi woote fii Gueule ñu ngi lay ah, ziar la jërëjëf Touré Touré. tokkel tëb. jërëjëf Touré. ñu ngi dégg waajtaay wi tamit. Touré. am nañ ci mbégte bu

jërëjëf sëñ dam Touré yan yalla barkel di ko euh, nuyuwaat bu baax di ko sant bu baax a baax baax euh, ni ma ko jotay jotaay ha mom ñi nga xamanteni ñoy ëpp li ñi deglu mo ëpp li ñi woté ñu ngi leen di sant ñun ñëpp 33 889 83 30 melni amna ku nekkat ci ligne bi mbokk mi ci ligne bi alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah maara mën naa woote déglu waa sëñ Yaxya sëñ Yaxya Thiam ma bi dama sëñ Mountakha mu ne da ngay mottali si juróom juróomi ان شاء الله سكتنا يلا سن يحيى امين امين امين كام امين امين امين كام امين امين امين امين امين امين كام جرجف كام امين امين والله والله والله رفن رفن جرجف جرجف يلا يلا فاي جرجف كام كام كام كام jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf <laughs> euh, sëñ Yaxya Caam tabarkàlla ci dugaat boobu nu ma leen ko waxee rek mbokk yi tey jotaayu euh, ñu namoon ko lool nag waaye nu ma ko waxee tey xëy na jot bi mayu ko woon waaye tamit mënuloon ñàkk tey mu teew ni mu ko waxee ngir rek euh, fas yéene ñëw saafonteeg auditeurs yi nga xam ni seen jotaay Wadduha tey ni ma ko waxee am na solo tey muy àllarba ba août 2017 mais ko sëñ Jaañ bu wakkaam mu mhm. ngi koy nuyu bu baax mu ngi ko fidèle la si émission alhamdulilah tabarkàlla ñu ngi koy ziar sëñ bi Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ca diwaanu euh, wakam kon 33 la 889 83 30 33 889 83 30 mooy euh, numéro téléphone rajo RMD rajo municipal de Dakar yéen ñi bëgg a dugg tàbbi ci jotaay xaa tey ñu fa fas yéene ci rek àndalaat euh, ba léegi rek ak El yi Mara Cissé mel ni am na mbokk yu nekk mbokk mu ne ci ligne bi ah, bu rek dañuy ànd ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay alhamdulilah. yéen na ngeen def. na ngi sant alhamdulilah. émission bi nag dama koy topp toujours di ko déglu. jërëjëf. waaw émission bu am solo la. jërëjëf jërëjëf. man dafa am lu ma bëggoon nga leeralal ma tuuti. waaw. bu ma nee nekk. turu Amla Lamaxudd bi bëggoon naa ko xam bu baax. baax na incha allah Amla Lamaxudd. waaw la nga bëgg a xam ak rëy macha allah. bëggoon naa nga xam nga nga nga yokk ñu ci bu baax. baax na baax na dinaa am lu ñu la si may si kàttanu yàlla. ba nga xam lu rëy de macha allah. am na solo. vraiment nga waxtaan mooy saban yi la xaru fi doon waxtaan mu ne sànq waaw moom fa laarum bëgg a jëm gën naa nga yokk ci bu baax si kàtt bi yàlla incha allah xanaa dama lay bàyyi mun taxaa bu ñàkk man lu la wax la am foo xam ne boo fa demee waaw boo fa demee samedi di nga ko mën a am incha allah waa kay baax na yàlla yàlla barkeel la dina am loolu la si may tamit yaram yaram jërëjëf wallaay wallaay wallaay wallaay macha allah tabarkal ñu bëri ñoo ngi wut xam-xam. Mhm. mais bëggoon naa daal eh, nga waxtaan ci bu baax a baax. am la xala ma xudd wallaay ndeysaan wallaay moom tur boobu moom macha allah. <laughs> jërëjëf waaw wàllu lu rëy la macha allah. boo ko ba mu nekk ci faata bi mhm. bëggoon naa daal nga waxtaan ci bu baax a baax. baax na baax na baax na incha allah. am na solo trop nit ñi koy tëb. waaw njort naa ne danga nga bëgg nit ñi jariñu si rek waaye. <laughs> jërëjëf waaw sëriñ yàlla barkeel allo sëriñ bi. waaw tur bi naka la. Euh, man taalibe bu ndaw rek. Mm. <laughs> waaw waaw waaw tur <laughs> sama seex bi rek. <laughs> ah dama yow de damaa bëggoon ñu di jokkoo sax hors antenne. man man man man émission Wadduha laa tudd. Eh, ah eh, kon baax na kon nag jeex na émission Wadduha. may lu barke Duha. yàlla bu baax la. yàlla yàlla may lu ah, solo dafa nekk loo xam ne vraiment am solo la. wallaay wallaay ndax ki biir jotaay bi rek dañu bëggoon bi ñuy gën di dox. Euh, daanaka mun naa ne sax si dama bëggoon sax ñu tëggaale ko woon. Mm-hmm. <laughs> Euh, ndax tey euh, tey da nga maa ngi ci toogaay bu ndaw loo xam ne man sax yéem na ma yéem na ma. wallaay wallaay yéem nekk loo xam ne allahu wallaay mu ah, dégg nga mu mu nekk loo xam ni. <laughs> lu yaatu yaatu la tawal. wallaay wallaay ah, ndeysaan lépp waaw naa waaw moo la feeñ ak la nëbbu mhm. mooy eh, kaw ak suuf mooy biir ak bitti mhm. mooy lépp ndax léppi àddina la koy conduire mooy allah waaye lay tax mu yéeg mooy Muhammad sallallahu mhm. alayhi wa sallam ñaari tur yooyu moom lan boole muy am laxala ma xudd pour ñi nga xam ne nu nga koy dégg nu koy wax samaan yal xuruuf soo ko peesee muy tolloog cent cinquante huit euh, nee naa cent cinquante huit mooy peese tamit iyaaka naxbudu mm-hmm. kon fa tabarak laa tegtal la si ne tur la bu xam ne kuy ut àddina ay ndeysaan euh, mën nga ko fay am waaye kuy ut àllaaxiraay mën nga ko fay am mooy yàlla ak yonente mm-hmm. allah muhammad soo ko boolee muy am laxala ma xudd non ma ko waxee nu yéene woon see def émission spéciale boo xam ne lépp si si semaine yàlla xuruf lañ koy waxtaanee. ndax day tur bu nu neex macha allah. tur boo xam ne bii danu ko mos te danoo xam la sa nekkit. wallaay wallaay xam nga maa ngi la ko doon wax sànq. mais bala ngay maye faaw nga suur. waaw wallaay dëgg la te tur la boo xam ne macha allah. képp ku ko yàlla barkeelal di nga am àddina di nga am àllaaxira wallaahi ndeysaan loolu <coughs> lu nu mën a tënk la tuuti xam na cent cinquante huit lay tollool mhm. képp ku ko man rek bët bu set lu néew néew nga boo ko mënee ñaari yoon mhm. lépp luy itte nga ñaan ko bu la sobeet boo amee aajo nga wéet mhm. nga wéet boole kook faatixatul kitaab juróom-ñaari aayaat yi aaya boo jàng si faatixa nga jàng ko soo paree nga def am la xalama xudu cent cinquante huit su dee mënoo def talsam bi nga def yaa allah yaa Muhammad. 158. arrahmaani rahim nga def ko 70. yaa allah yaa Muhammad 158. tabaraka noonu ngay def ba saar ba jeex nga deexanteeg borom bi la ngay deexanteeg moom. fa tabaraka laa ndab loo ko tàllal. mën na fees del bu feesulit fa tabaraka la da nga am loo xam ne sa xel dana dal lool am na solo kon tegtal la si ne ku woo yàlla si ismu saat mooy allah bu la si wuyu jàppal ne du la wuyu si beneen tour tabarkalla alhamdulilah tënk la si ne daal macha allah. Mhm. comme noonu mu ko waxee rek mhm. géej la macha allah. lu jar di naan géej gu jar gëstu yi gëstu la am na mbokk mu nekk ligne bi rek bu fekkee egsi na salaam waaleykum salaam wa ah, na Wadduha ah. mu ngi nii yaay Wadduha ndeysaan tey bopp bee xawoon ah massa massa ah. massa waay massa sànq laay soog a lay jàllee sa doom sa doomu mag bi wàññi ko woon wallaay ndeysaan ñaan yàlla yàlla wallaay wallaay wallaay avec àjjana firdawsi amiin amiin amiin Ndiaye moo ñu jàpp fan yii yëpp wallaay dëgg la dëgg la dëgg la wallaay muy xale bu baax wallaay wallaay wallaay wallaay di la ñaanal Cissé jërëjëf jërëjëf am na yàlla yóbbu la si jàmm indi la si jàmm amiin amiin amiin yow dem nga ba pare da ngay jëli kaala gi rek jërëjëf jërëjëf wallaay azim li ngay jëflantee jaami yàlla yi jërëjëf te dara doxul ku dul jëm suñu borom bu tedd bi wa taala. jërëjëf Ndiaye ñu lay ñaanal. jërëjëf Ndiaye yàlla defar yoon wi ba mu baax. amiin amiin amiin Ndiaye sant nu ak mbaaxam. amiin te rabbi loolooy am. jërëjëf Ndiaye xool rek la yàlla seet. jërëjëf jërëjëf yaa ngi dimbali jaami yi xooloo xaalis xooloo dara. jërëjëf Ndiaye ki yor ki yor ay junni ak ki yor dërëm nga yemale. jërëjëf Ndiaye xooloo dara sa lu sa diggante ak sa borom. jërëjëf Ndiaye Ndiaye yàlla mi am jàmm di jàmmal yàlla la jàmmal. amiin amin amiin yaa bëgg ñu yokku yaa ngi bëgg ñu wér. jërëjëf Ndiaye bëgg ñu am kantan bay faj suñuy soxla. wallaay wallaay wallaay yal na fay la yu barke alxuraan. amiin amiin te nga yemale. amoo xàjjee seen. jërëjëf la la. Mhm, mhm. yow ya ngay xool na rek nit ki jaamu la. dëgg la mhm, mu yaakaar la ñëw si yow nga fajal ko ay aajoom si kantanu yàlla ak mbaaxam. alhamdulilah li ngay def si jaami yàlla yàlla fay. man moom dama lay ñaanal rek saa su dama lay ñaanal. wallaay Ndiaye Ndiaye yegg nañ ñaan yi tamit lool fi nga ma teg xam naa ko. <laughs> Eh, eh. bokk aussi mënu ma leen fay mënu ma la fay mënu ma fay sa famille. wallaay wallaay lépp yow la damaa bokk si yow. lépp yow la wallaay noo bokk noo bokk Ndiaye. lépp laa bokk ak yow. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. di ñaanal sëñ Mountakha. ah Ndiaye jërëjëf. <laughs> moom it yàlla si topp barke alxuraan. Ah, amiin yaa rabbal aalamiin ñëpp yàlla nañu dem. Ah, amiin amiin amiin góor boobu wax léegi rek na yaa ngi fekk soxlay jaam yi. Mm, jërëjëf Ndiaye yàlla suñu borom di koy jaarale say loxo. Eh, jërëjëf Ndiaye. man man rusuma rusuma jàkkaarloo yow. Eh, te keneen aussi rusul jàkkaarloo yow. Mm-hmm, mm-hmm. wax dëkk yàlla loolu mbiru suñu borom la. wallaay wallaay wallaay wallaay. yàlla mi tax ngay sonn si jaami yàlla yi di jël sa temps yëpp di ko sacrifier. Mm-hmm. da ngay sonn sax waaye du tee mhm. yaa ngi toog di ñuy dëggal yaa ngi toog di ñuy dalal mhm, mhm. man sama premier jour bu ma jàkkaarloo yow jàkkaarloo gu ma ak yow téléphone rek laay wax ak yow maa ngi sonn nga dalal ma Mm-hmm. dalal ma téléphone ma ñëw toogaat mm-hmm. yow nga dalal ma mm-hmm. ba sama aajo yëpp faju si kàntanu yàlla naa su ma amee soxla sax su ma toogee yow sama aajo faju parce que ma ñaanalul sax ne jàkk si yow rek wallaahi al azim billahi laa ilaha illaa xoo su ma ñibbee rek sama lépp day faju parce que alxuraanul karim jàkkaarloo yow ñibbi rek léegi doy na ma sax si yow ndax bu ma ëndaalee sax bu ma kalaa wax sax bu ma yëg see toog rek. wallaahi damay sentir ne li ma indi dañ na sama yaram. wallaahi wallaahi. yal na yàlla fayal la. amiin yaay te li may wax yàlla rek tax ma koy wax. amiin wallaahi wallaahi yal na yàlla sàmm la siise. amiin amiin yaay dem si jàmm ñëw si jàmm. amiin soxna Adama Sall maa ngi koy nuyu lu bari. jërëjëf ndeysaan wallaay dëgg la dëgg la dëgg la kay ku la bëgg macha allah wallaay tey dama doxoon ay itte ne mi ngi ma doon wax ne ñëwoon na fa nee na xaar na la dëgg la dëgg la association bi yëpp nag dëgg la maa ngi nuyu ñëpp ndeysaan nuyu ñëpp yaay Wadduha maa ngi koy nuyu lu bari alhamdulilah yal na yàlla jàppal ñu ko amiin amiin amiin yaa rabbal alamin soxna Adja suñu kilifa mooy ah ndeysaan ah kooku eh, président soxna Adja Aram Ndiaye tabarkalla féete nag ci diwaanu Tëngéej <laughs> ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax a baax mooy di liggéey lu ama ama am solo ci association Wadduha mhm. eh, Wadduha solidarité 33 889 83 30 mel ni am na ku nekk ci ligne bi mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatulah alhamdulilah Ah, Alla Ndiaye la yoroon. Eh, Ndiaye sëñ Alla gëj naa laa dégg. dëgg la ñu ngi dañuy kontaan rek. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. wax ah, dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. wax dëgg yàlla fi ñu toll ñun dem nañ ba même bu émission amul tam bu waxtu wi jotee moom ñu ngi toog di déglu rediffusion. wallaay wallaay wallaay wallaay jéggalu leen yu bëri tamit. ndeysaan ba ba baax na baax na baax boo defee émission sax rediffusion yi rek dañuy toog di ko déglu. wallaay jërëjëf Ndiaye Ndiaye ñaanal bu baax a yàlla yàlla fay. amiin amiin yàlla yokk lu bëri. amiin jërëjëf amiin jërëjëf jërëjëf. yàlla ñu ngi koy nuyuwaat tamit di ko jaajëfalaat bu eh. baax soxna jaaram tamit di ko uh, gërëm cant bu baax mu macha allah si moom la ndeysaan 33 889 83 30 sëriñ Mara Cissé la jotaay Wadduha asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wa Diop la Diop la. Diop Diop. ma ne dama doon laajte rek benn turu yàlla. Mhm. Hmm? karatay bi. Eh, kara. karatay bi. ah karatay bi. waaw. waaw. waaw loolu jox ma ci ay tegtal. baax na incha baax na. jërëjëf baax na yal na yàlla barkeel. karatay bi karatay tabarkalla yal na yàlla barkeel ko amiin yaa rabbal alamin 33 889 83 30 mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. alhamdulilah alhamdulilah ahlan. sëñ bi ñoo ngi ziar. yal na yàlla nangu te barkeel. te ñaanal góor googu li mu wax léegi yàlla na ko yàlla sottal jàmm ak salaam. amiin yàlla bële na ko jërëjëf. xam ne moom bu demee rek dina ñaanal bépp sénégalais. jërëjëf jërëjëf yàlla. waaw dañ ci barkeel man la Mamadou Ndiaye bu tëngee eh, ci. Ndiaye Ndiaye sëñ Mamadou Ndiaye. yaari sëñ bu baax a baax. Ndiaye jërëjëf Ndiaye. te ñaan loolu yàlla def ko mu doon ay yooni yoon. boole amiin amiin amiin Ndiaye Ndiaye. Ndiaye man nag xaw naa bokk ci rajo dafa am lu tuuti rek lu may xool ndax euh, xam nga nit bu xamoon rek day laajte. waaw waaw. dugg naa ñaar ñetti waaye dafa am ku may jot. ah dafa am koy jot koy jot. waaw waaw dama yaakaar ne mënuñu koy bay comme bu njëkk rek seen dugg ci rajo bi rek sa xaalis du waaye bu dee kenn daf lay jot. ba pare ñu ne la comme dafa am ci ligne bi coupé nga oote waat bu fare loo xam ne war a ko fa suñu ay eh, <laughs> da nga naan oote rek jot. waaw sëñ Modou. <laughs> waaw waaw. Eh, xam nga rek eh, xam nga wàllu ni ñu koy waxee rek wàllu motivation bi am coppite te numéro bi sax war a woote ci numéro bi. man kañ ko yow rek am naa ko. waaw kay léegi nag moo waral ko waxee rek ci njëlbeen xam nga jotaay na dañu ñu def direct. Mm-hmm. loolu am na moom. waaw te ñu ci jégalu tamit ku ñëpp xam naa rek fi nga toll noonu sa mbégte tey ñu ci bëri fa lañ toll rek te dañuy sant yàlla ci loolu rek waaye ñu ci jéggalu baax a baax a baax li ñu xam rek. jéggal naa ci ah, jërëjëf jërëjëf Ndiaye yéen ñu ngi lu ma jaaxal ba ñu wax ci yoon waaw rek dama ci ànd suuti ñi ma koy maanaam def ci lu mel ni sax du pertement. ndeysaan ndeysaan comme na ne bu ma doon ko peñe si yooyu bu ma demee la dëgg la jërëjëf. ñu ngi yëg lu baax ngay jërëjëf. barakallah fika Ndiaye alhamdulilah tabarkàlla ah, ñu koy sant moom it ndeysaan mm-hmm. eh, ni ñu ko waxee rek eh, ni ñu ko waxee machine moo bindee eh, ma ko waxee tey ku ci nekk rek mu ngi dugg bëgg a wane mbégteem saafonteeg sëriñ bi mm-hmm. El Hadji Mara Cissé tabarkàlla jërëjëf sëriñ Mamadou Ndiaye ci Tëngéej ñu ngi koy nuyu moom yaa jëf mm-hmm. di leen fàtt rek ni 33 la numéro bi ah 33 889 83 30 muy bu mu jokkoo bi ni ñu leen ko waxee rek li waral tey jotaay bi gën ci am doole lool muy tey borom jotaay Wadduha àllarba bu jot 22h jàpp 0h gis ngeen muy rek waajal li nga xam ni moo di. juróomi lu ponkam bi nga xam ne war fa seene koo matal rek ci màkkatal mu karam muy El Hadj tey nekk ah, ah, tey en direct tey ci rajo RMD fa seene rek ànd ak euh, li nga xam ne moo di auditeurs yi ak soppe yi euh, tey àllarba 9 août 2017 kon mu mel ne a mm-hmm. mu ne am na solo El mm-hmm. Hadj Mara Cissé ah, mm-hmm. mel ni loo xam ne tey euh, tey ñëpp xam naa ne ñi la jotul tey mooy mooy fa seene na a ëpp nag waaye ñu si jéggalu bu baax wallaay wallaay nekk ñu wane <laughs> mbégteem wax fa mu mel ni tamit sëñ Diop moom ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax a baax laaj karatay ni moom it xam naa ci kanam bu ñu amee jotaay tuuti rek nga mm-hmm, mm-hmm. euh, mën ci rek xëy na laa bi biir ko ci tuuti incha allah mm-hmm, la Mouhamadul Amin di sant di gërëm ñu fi jaar ñëpp di ñaan yàlla lu ñuy ñaan li loo yëpp yàlla boole na ko euh, fa tabarak la soxna Adja Aram noonu ma ko waxee kollëre sama diggante ak moom ba léegi macha allah na ma ko waxee ay mbokk lan ndax. bu baax nee na ay famille ñu bëri xam naa leen. wallaay wallaay moom samay famille ñu bëri xam na leen. dëgg la doon kuy liggéey tamit toujours si Wadduha fi tabarakallah si mhm. luy gën a boole nit ñi lu koy gën a yaatal. maa ngi fàttaliku bi émission di dog di am saa yu jotaan mm, day jël portable am képp ku ma xam. mu yónnee le message jàppal fréquence euh, sangam. jàppal fréquence sangam. loolu macha allah boole kooku. Euh, toogal nu foofa it mhm. jiite association bi nga xam ne su ma juumul seen membre yi bu ma jumul war na passé quatre cent mm-hmm. loolu lépp itte la kon ni ngi ñaan ñoom ñëpp yàlla may leen barke doxa yàlla yokk xéwal yi yàlla sàmmal lu kolëre gi eh, fi tabarak laa loolu laa doon wax si moom ak ñi fi jaar ñëpp it di ñaan yàlla nangu ñaan yëpp mm-hmm. mm-hmm. eh, naa loolu am na solo tabarkàlla gis nañu jotaay Wadduha ba fa mu tàmbalee ba fi mu toll lépp ñu ngi jàpp rek yëpp rek xool yi yaatal liggéey bi ñu ci jàppaat bu baax ñoom ñëpp itam ñu ngi leen eh, siyaar ku ñu tudd ku ñu tudd yëpp xam ni xam nañ mm-hmm. euh, ku lim rek da ngay daal di jum rek loolu rek dafa xaw a metti waaye ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax mm-hmm. sëñ Diop moom it euh, xam naa rek ni ma ko waxee rek ni euh, moom karotay ni lay laajte moom tuuti xam naa incha allah dinañ ñàkkul si mission amaatee dina am doon ko si mën a leeral baax na mais jamono yi jencuñu loo xam ne mën nañ ko ko see wax si baat boobu karatay na tabarkàlla mhm. alhamdulilah 33 889 83 30 33 889 83 30 mooy bu mu euh, jokko bi nga xam ne incha allah euh, kon rek muy yoon wi nga xam ne boo ci jaaree rek incha rek daañu la mën a euh, tàbbil li nga xam ne moo di ci jotaay bi dégg nga El Hadj Mara mhm. mu nekk loo xam ne am na solo mhm. gis nañ li nga xam ni tamit ni ma koy faral di waxee mhm. euh, wàllu euh, njaboot mhm. bu ñu ne El Hadji xaritu njaboot yi mhm. euh, gis nañ li nga xam ni njaboot dañ koy liñ koy wax rek waajal dañ koy waajal ba mu nekkee xaleel wallaay wallaay jëm jëm ba li nga xam ne ëllëg boo ko soxlaa mën ko am ci moom loolu ki yan bunt ak yan yoon lañu war a mën a jaar eh, macha allah foog naa néew na waxtaan yu nu waxtaan rek dana am tuut lu nu sañ njaboot si loolu Mouhamadul Lamine njaboot dafa joy si man ay yoon te dina di wax ne garab ga ngay ga nga xam ne bi macha allah. ya ko jëmbat di soxat di jubanti ba garab mag ba totor ba am meññeef mhm. eh, nit bu ñëwee dàq la ne la momo ko deng ndaysan lolu ku nekk war nay xam ne du luy neex ci xol mhm. muy xaw di am nak yenn saay si ñoo xam ne bi seen njaboot bu nu demee ba man mhm. yeneen i yaay la ne am wala yeneen i papa mooy tax dinaa di wax ne jamono jamonoy 2017 du mhm. jamonoy 1960 mhm. képp ku yàlla may njaboot jiitu sa jiitu sa ba ngay moom muy yow loolay tax ak fu mu mën a tolli lu mu mën a am da yow lay jiital du lay gannaawal benn yoon Mohamed xam nga ne kii nga xam ne diggante bulletin de salaire ak bulletin de licence hmm, naissance sore na sore na lool diggante boobu yëpp waajur a fa nekk dem ba bulletin de salaire ñëw mhm. yenn saa yi amaana boo waree def benn tontine di ñaan sa doom cinq mille da nga sonn lool ngir am ko te amaana su génnee mën naa may cinquante mille mhm. yoo xam ne bi daf koy def ak mbégte loolu yaa quelque chose mooy tax dañuy xirtal njaboot gépp képp ko si yàlla may njaboot rek mhm. jiitu sa ba ngay moom muy yow ndax ki nga xam ne bii si yow la soqi ko màggee si sa deret fa tabaarakala kooku képp ku sa jiitu rek yaa ko gën a yey mooy tax loolu nu ngi koy ñaax waay yëpp nuy jiitu si njaboot gi buñ si jiitee nu leen di aar ndax eh, jamono dañoo nekk si quatrième génération mm-hmm. moyen de communication yi bëri na léegi fa tabaarakala borom kër Euh, mënta ñàkk këram lépp. lay dëgg la mënta ñàkk këram lépp mooy. Mhm. ku ne mën nay dugg këram te du koy gis. dëgg la ndax danay am njaboot mu nekk sa néegam di mhm. jokkoo àddina te du doon lu muy yëg. lay dëgg la mooy tax boo amee njaboot tamit jiit ñàkk ko ba nga xam ne bii fa tabarak laa lépp luy safaan. Mhm. si ndimbalu yàlla yàlla mën na ko say musal. alhamdulilah te loolu lépp nag mën nañ ko amee si ñaan waaye mën nañ ko amee si alxuraan. ndax euh, amul lenn. loo xam ne bi mënuñ ko amee si kitaabullahi boobu muy alquranul karim mhm. kon na ma ko waxee rek tàmbale si tuut tànk ba na mi màgg nan di préparer njaboot gi mhm. nan di préparer njaboot gi ngir nuy nekk moomeel si seen i waajur mhm. waaye nuy nekk tànneef tamit fa tabaarakalla Mouhamed Amine jërëjëf jërëjëf yaakaar naa loolu am na solo tabaarkalla jërëjëf El Hadji Mara Cissé mu mel ni rek ni rek ñu ngi ànd ak ba yéen ba léegi rek seen jotaay Wadduha 33 la 889 83 30 33 889 83 30 mu ñu fas yéene rek ànd ak tey ak yéen jotaay bi nga xam ni jotaay itam saafonte la mel nii rek ni rek jëm ju baax ji la El Hadji Mara Cissé fas yéene rek matali juróomi ponkom ci juróomi ponkom ci lislaam jëm euh, ca màkkatal mukaram wala aj incha allah dana ko fas yéene ama rek waaye tamit euh, moo tax itam li ci bëree bëri itam tey euh, mhm. ñu taxawaat rek fas yéene ànd ak moom rek mu i fas mhm. jotaay bi nga xam ne rek muy vingt-deux heures su ànd ak ndimbalu yàlla it mercredi bu nekk danañ am seen émission ah, Wadduha alhamdulilah rediffusion yi incha allah dinañ koy am si kattanu yàlla incha allah alhamdulilah mel ni dara di coppeeku incha bu tigi lépp lu nit ittewoo si kattanu yàlla. su fa mhm. demee mën na koy am. incha allah macha allah tabarkalla. Mhm. Mhm. loola lay wan ne rek liggéey bi mu ngi wéy. tabarkalla incha allah ñu koy ñaanal dem ak jàmm dellu si ak jàmm. 33 889 83 30 mu mel ni mu ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam yan yàlla nangu tabarkeel. maa ngi lay woowee Thiaré ah, bi laa biir. Ah, jërëjëf a meloon ne yow. ndeysaan. Mhm. dina am. dëgg la maa ngi ñaan yàlla fayal leen li nga bëgg di ko joxe kado. Mhm. wallaay wallaay wallaay. ma bokk si moo bokk si ñu am na waaye aw ma woon yitte yi pour ñëwoon. ndeysaan. Mhm, sa réeroon. fekk na am na benn euh, soxna soo joxe woon numéro am. Mhm. après ma woo ko mu jox ma numéro am. wallaay wallaay wallaay. mais kooku lu tax ma ma fonk ko. ma mhm. maa jox sa numéro ba pare na ma. Mhm. waxaat ko waxaat ko may dégg. ndeysaan ndeysaan wallaay lépp itte. boo amee nit ñi mel noonu. itte yéene wallaay wallaay wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. wallaay mi kontaan naa si yow. jërëjëf yal na yàlla fay. yàlla barkel macha allah alhamdulilah <laughs> jërëjëf la ñu ngi lu mbokk moom duggam gi itam mu nekk loo xam ne lu am solo la la ñu ngi wéy ba léegi rek ci téléphone bi am ah muy <laughs> jotaay bi rek 33 la 889 83 30 33 889 83 30 muy bu mu euh, jokkoo bi waaye tamit ñu ngi nuyuwaat bu baax a baax rek dañ ko tàyyi di wax ñi nga xam ni itam ñu ngi ci féete ci boutique yi euh, boutique Wadduha itam ñu ngi leen nuy waat bu baax a baax a baax a baax di leen wax itam ni ma leen ko waxee rek ni euh, ba léegi rek wi liggéey bi dina wéy foofu lépp li ngeen yittewoo seen wàllu ñaan ci li ngeen xam ne itam aju ni seen wàllu paj incha allah bu leen fa egg rek lépp li ci war rek incha allah ñoom it daañ ci mën a taxaw bu baax a baax a baax mm-hmm. di leen fàtt rek ni en face lycée mam Limamou euh, rek bu fa yegsi rek euh, da ngeen rek euh, numéro boutique ba rek 76 le 310 95 60 que diwaanu Point E Point E yéen tamit ngeen fa rek dem numéro téléphone bi nek 70 922 23 75 70 922 23 75 bu fekke ca 77 le 262 36 28 77.

kilifa gi El Hadji Maracissé Cissé 77 617 70 44 77 617 70 44 waaye nag di leen fàttali nag eh, lépp li ngeen soxla ci moom bëgg koo xam tamit ci El Hadji Mara dem leen ci site rek ñett w point wadduha point org ñett point wadduha point org mooy li nga xam ni boo leen ko defee rek lépp li ngeen soxla ci moom ci wàllu information ak lépp li ngeen yittewoo rek da ngeen ko fekk ci biir El Hadji Mara Cissé mu xam ni am na solo. Mm-hmm. Euh, jotaay bi tabarkàlla mu ngi dox. Mm-hmm. mu nekk loo xam ni lu lu yitteel askan wi gis nga ci njaboot njaboot euh, niiw na ngay wax ci jotaay ba ba jug ci. Mm-hmm. te doo tudd njaboot gi. wallaay nekk loo xam ne lu wax dëgg yàlla am am solo la. ma ne sunu defaroo rek macha allah lépp defaru. loolu looloy tax. toujours nuy fàttal nuy laaxe birante mhm. eh, njaboot gi nu leen gën a defar eh, nu leen gën a mhm. eh, di gën di raxas seen xol tamit fa mhm. tabarakallah dinaa koy wax mm, noflaayu àdduna yëpp looloo si gën mooy yàlla may la njaboot goo xam ne tànneef la ñu doon dundandoog ñoom ba day nekk bànneex tey saa yoo leen bàyyee nu lay fàttaliku ndax dinaa di wax toujours ne nii nit di nekk wayjur di koy toppatoo di koy jox muy xéewlu mhm. lépp lu mu bëgg mu di koy def kasaaka bu dee tànneef saa yu waajur jiitoo loola mën nay continuer te mooy toujours mu koy yónnee ay xaddiya alhamdulilah ndax bokk na si yiw yi sallallahu alayhi wa waxoon ne du ma sa dagg mhm. mooy njaboot ju baax ju lay ñaanal kon loolu jar na kuy ko yàlla may rek mu jéem a def itte mhm. ba njaboot nekk tànneef Mouhamed Amin. jërëjëf mm-hmm. jërëjëf El Hadj Mara Cissé mu mel ne tamit ba léegi rek du tey tamit euh, saa su tamit ñu ngi ànd ak tuuti ak li nga xam ni mooy ànd ak actuali actualité lañ koy wax ne maanaam ci mm-hmm. njaboot gi. Euh, mm-hmm. da ngay gis ni tamit ni ma koy xëy saa su euh, yaram yi diis na lool. yaram yi diis na. daanaka boo demee sax boo demee lu ñuy xool dañ daanaka mbirum baatin rek mooy mën a gis li nga xam ni. bëccëg gi moom da nga nekk en forme waaye guddi gi daal da nga nekk cawarte waaye guddi gi day mel ni guddi gi lay bañ. wallaay wallaay dëgg la ñuy. mooy ñi eh, tabarakalaa mooy ñi nga xam ne dina koy wax rek dinañ leen di programmer. waaw <laughs> ñàkkul euh, ngelawu jinne ma nga seen yaram ba heure boo xam ne saa yu jotee rek dootuñu moom seen bopp. la ne sa ñoom day yëngatu. su ko defee ñoom seen yaram daal di bàyyi. Mm-hmm. Eh, nu seen yaram diis wala seen fa tabarakalaa nu jagadi. Mm-hmm. yooyu muy feebar yu bëree bëri bëri dinaa koy wax ne. luy jar di musul la mooy sayaatin yi te nu nekk la ni duggee doomu aadama eh, mooy tax ñaare da ngay gis nit mën nañ koo defal bilan te ne ko gisunu si yow dara te moom dana koy biir ne eh, yaa quelque chose wallahi dëgg la kon day baax nuy barkelu bu baax a baax a baax a baax si mm-hmm. te mu bëri yoon yu bëri yoo xam ne soo ko jëfandikoo su fekkee ngelaw ngi si yaram dana eh, bàyyi mm-hmm. fa tabaraka laa ba nga moom sa bopp moo tax xam na yu nu fàgg nu tuddee ko woyofal yaram mhm. ndax jagadi saamee rek yaram diis na lay dëgg la kon nu tënkee ko woyofal yaram lépp luy tawat bu ñëw rek si kàttanu yàlla su ko ni dee jëfandikoo alhamdulilah yàlla mën na ko see defal sifa macha allah 33 889 83 30 rajo municipal de Dakar mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa kay ku baax ah, lan mbokk bi chef bi ngi sant alhamdulilah war ngeen jàppale aussi ngay wax tegtal góor ñi ci ci takk xale yi ñu leen di góor ñi sonn nañu de. leer takk xale yi ñuy takk góor ñi ci seen diggante diggante wujj yi loolu war ngeen ci waxtaan ak. Ah, takk xala ah, takk xala. waaw ñu takk ah, boo demee fee di nekk góor boo demee. wallaay soxna yee na ma yàlla baal soxna yee wàññi ko rek. loolu war ngeen <laughs> wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la bu am solo. fàttali na rek. góor ñi sonn nañu. wallaay ah, dëgg la bu am solo la. <laughs> dëgg la yàlla baax na. te te njaboot gi foofu lañ koy defaree. te wallaay wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la wallaay wallaay wallaay. ah war ngeen ci waxtaan de. wallaay dëgg la yaaram dëgg la wallaay ah, ndeysaan. jërëjëf wallaay jotaay jotaay Wadduha mel noonu. fóot xol yéen nanu koy waxee rek na ma koy nan koy waxee rek ne soxna ak jabar dafa wuute. dëgg la wallaay <laughs> wallaay dëgg la. jabar yi nag day dafa mel moo xaw di ëpp. Hmm, hmm. yenn saa jabar nag moom leneen la. kéemaan la te yal yàlla may ñëpp soxna. amiin yaa rabbal aalamiin. jigéen yëpp ñii see soxna ñii see ñëpp suñu yoree jikkoy soxna. waaw lii mu wax nii dana fi jóge dana fi jóge dëgg sànq ni maa ngi doon déglu woyu Fatou Gueye. du ma koy doyal fi tabarak la si ne baax euh, lenn tolluwul ak moom. Mhm. ak euh, yiw. Mhm. fa tabarak ndax dund ga ngay dund fii si àddina bu bëree bu bëri du ëpp téeméer. tey njaboot goo fi bàyyi béy laa yow mi diin fa tabarak laa loo leen wàll si sa yiw boobu. dégg de wallaahi. mooy tax euh, bu dee safaanit ka saaka noonu lay demee. Mhm. dinaa koy wax ne baraana koo xam ne la ko sos a ko tooñ. te la ko sos macha allah léppam safaan la. moom bu juddoo sa loolu di nàmp meew koo xam ne bi xol ba leerul deret ja leerul kooku mu màgg leer day xaw di jafe nan gën a fóor xol yi Mouhamadul Amin tey nangu dogalu yàlla àddina du lu sax lépp bu lu yàlla dogal mhm. mbiru sëy domaine borom bi la yàllaay dogal ne kii ak kiikat war na nuy sëy si la kii di juddoo mhm. su loolu amee nag nga ne du am yaa ngi jóge si xisbullah yaa ngi gën a ji xisbu saytaan. te loolu lu jar a muslu la. Eh, jamono bu gàtt ba nu fay am jaru ko. Mhm. lenn jaru ko fa tabarak la. ni ko sëñ boobu waxee eh, lu. lu bari la fa la waaye ku yor ji koy soxna da ko maytu. da nga ko maytu dëgg la da nga ko maytu dëgg la. Mhm. muy lu am solo wax dëgg yàlla euh, muy seetlu. muy mhm. seetlu boo xam ne mhm. ni ñu ko waxee tamit ci jamono. lu xaw a bëri la. ak ña koy def it gën a seet yàlla. bàyyi ko xel bu baax ne nit bu ñëwee wax la dara xool ko si sa bopp rek. Eh, fi tabarakla li ma benn soxna waxoon ne ma dama bëgg du ma am wujju ah doy na ma ne ko loolu de su ma ko amoon tamit su ma la ko defalee tooñ ndax man mënuma yor xaj ña lu ëpp benn ba pare bëgg koo xaj sa borom kër loolu macha allah kanuy fekkit bu fekkee ne kuy liggéey leer la mm-hmm. dama jàpp ne yennat yi du ko def bu dee nag si beneen xisb la moom loolu leneen la. leneen la waaye ki nga xam ne bi daal saa yu waxtu jotee dina bàyyi itteem yëpp jàpp taxaw ne allahu akbar. Mhm. yenn yi war na koy jomba def. te képp ku toog sama wax ko ko war na koy waar. Mhm. yaa nga doon laaj li ma gën a neex am na si boo xam ne bu xaw a jege loolu la. waaw eh, mosoon naa koy wax. kii ñu jël. waaw ñu kii ligne bi 33 eh, la eh, mbokk mi ki ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. baax lan. sëñ yaram. sant bi. Camara. Camara Camara yéen la. <laughs> jërëjëf Camara. ma ne. waaw. damaa ci daara ba foofu. waaw. waaye garab yi ma jot a jox nag. Mhm. sama tànk yi ñoo bàyyiwul ba léegi. Ah. <laughs> waa baax na. waa sëñ waaye Insha allah baax na léegi bu jokkoo si ma seet ba xam ma seet kaye bi. ba xam lan la ñuy defaat. waaw. incha allah. Mm-hmm. Insha allah jërëjëf. yal na yàlla amin amin. amiin amin yàlla woyofal yaram yëpp. Amin. baax na tur bi nan la. pap Camara. Pape Camara ban dat nga korgi. ñëwoon. maa fa ñëwoon ci avant gi. avant bi jàppoo dat bi de. waaw ah, baax na bu nu jokkoo suba ma xool kay bi ba xam am na lu nu war a defaat dem baax na baax na incha allah baax na kon euh, Pape Camara moomu. Mhm. Euh, dégg nga ko euh, kon xam naa rek bu fexe rek bu ñu jokkoo rek mën a xam ni ñu ko waxee rek. Mhm. waaye tamit rendez-vous yi tamit ñuy respecté rendez-vous. 4 33 889 83 30. salaamaaleykum waaleykum nu ngi sant alhamdulilah. dëgg la sax na. jërëjëf. si kàttanu yàlla du jafe incha allah maa ngi géejawaay. buntu lycée maam li maamu laay. si kàttanu yàlla waaw. xam naa yéen noo jël feet tuuti nag ay fan ndax dañoo yéene aj incha allah. Mhm. Mm-hmm. jërëjëf incha allah si kàttanu yàlla bu nu jokkoo suba dina jàppandi incha allah. si kàttanu bi bu mu bañ a àgg dix-huit heures jërëjëf jërëjëf soxna. ndeysaan euh, ñu di ko santaat bu baax li soxna soos nga xam ne génn na léegi rek ni ñu ko waxee rek mbokk yi tey spécial ni ñu ko waxee rek maanaam saafonte ak jëmm ju baax ji El Hadji Mara Cissé gis nga rek fas yéene rek matale gi li nga xam ne moo di juróomu ponkam ci lislaam muy wàllum aj aj incha allah màkkatal mu karam ñu di ko ci santaat bu baax di ñaan yàlla suñu borom rek nañ ko tàmbale rek ba léegi rek suñu borom kàttanal ko dañ ko dool di wér ci barke yonent bi kon mbokk yi ñu dem li dafa mel ni rek la ñu defee ci waxtu taxu koo bareeti lool 33 880 889 83 30 33 889 83 30 mooy bu mu euh, jokko bi. Euh, El euh, El Hadj Mara ñu daal di ñëw tuuti rek ci wàllu. léeg-léeg li ñu koy waxee rek patient yi ah, am na ko ci ligne bi mm-hmm. bu fekkee yegg si na ñu daal di ànd ak moom kii ci ligne bi 33 la 889 83 30 salaamaaleykum aleykum salaam alhamdulilah sa kilifa bi na def alhamdulilah waa ah, Cissé Cissé sant bi Diallo Diallo. Diallo Diallo Diallo ah, Diallo. waaw allah xaar yàlla dina ñëw incha allah. waaw. <laughs> <laughs> Diallo sant di la gërëm. siyaar bu wér. yal na yàlla nangu tabarkeel. waaw kontaan nañ ci yow trop. jërëjëf jërëjëf. Ah, man nag maa ngi la doon dégg depuis rajo bële ci Wol FM. wallaay dégg la loolu yàgg na. maa ngi doon <laughs> la. waaw waaw kontaan nañ trop. jërëjëf Diallo. waaw kontaan nañ trop ci sa liggéey. jërëjëf jërëjëf. ak teeyaay bi teeyaay bi surtout teeyaay bi. jërëjëf yal na yàlla fay. Mm. waaw loo loo ñu si mën a may rek si xayul xayum. xayul xayum. waaw xam naa macha allah di am looy sàq mi toujours. waaw waaw waaw di dëkk di am kattanit. am bayre. waaw yooyu yëpp tabarakalaa sooy def cent soixante quatorze yi. cent soixante quatorze yàlla mën na la si dimbale si kattanam. waaw boo si dollee boo ko dee def deux cent vingt. deux waa ki nga xam ne bii macha allah bëgg na toujours muy am lu muy dundee. ak lu muy dundalee njabootam. waaw ma ne ku la am solo la nag dinay maye bayre dinay maye ndëgër laay ki nga xam ne dina koy jëfandikoo toujours li ñuy wax comme feebaru cër yàlla mën na ko si dimbale. waaw ba du koy dal. waaw incha allah. yan yàlla barkeel. jërëjëf waay waaw 220 ah. waa 220 wala 174. waaw bu dee 220 yi mooy Allahu xayul qayyum. Allahu xayul qayyum. mooy tolloog 220 mooy tolloog famm di gémmiñ mooy tolloog taxaam lay dem si gémmiñ. Hmm. booy ut looy. Ah, dama déggoon tamit beneen 240 euh, xaw ma. 240 Allahu xayul waa 240. Ah. Mhm. waaw waaw la maa 240 moy allah hayyul qayyum 174 bi moy hayyul qayyum hayyul qayyum hmm ba ba na jere jere na yàlla barkel mbok bi. merci way jere jere barkela barkeel hmm jërëjëf mbokk bi. Eh, macha allah laajte na lu solo lool. <laughs> ma ne ko xayul xayum ma ne ko laajte macha allah. barkalla alhamdulilah. <laughs> Eh, mu mel ni rek ni ñu ngi koy nuyuwaat boobu sang bi jàll ca diwaanu xar yàlla. <laughs> dana ñëw incha allah eh, kon mu mel ni rek El Hadj Mara mel ni xëy na li mu desee ci waxtu moom. waxtu bi kette na lool. yàlla wallaay jéggaluwaat si tardement waaw waaw ndeysaan mu nekk loo xam ne am na solo. <laughs> ndax euh, ni ma ko waxee bu doon ñaari simili la sax. Mhm. Euh, xool yëpp sedd na. wallaay wallaay itam dal na bu a baax a ma li ma a wax rek na nga ko waxee woon rek. Mhm. Euh, dina xel di continuer rek di wéy. incha allah mhm. bi nga xam ne moo di rajo rabbi kon noonu lañ ko fas yéene rek di ànd ak mboolem mboolem yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun ci jotaay Wadduha <laughs> mhm. El Hadji Mara Cissé am na tuuti rek ci bunt bu mel ni waxtu bi daanaka nañ jël ko ci ligne bi balaa mhm. ñuy ñuy mhm. euh, mbokk mi ci ligne bi fekkee yegg si na rek 33 la 889 83 30 mbokk mi ci ligne bi salaamaaleykum salaam wa rahmatullah euh, Serigne waa Kën Adja Cissé Diouf la Diouf Diouf gisee si si maa ngi lay gërëm di la sant. man maay man maay bi. naa uh-huh. ñu gisee woon ci kaar bi. Eh, waaw genou bi amoon problème nag. masa eh, masa Diouf a ngi nii. Uh-huh, uh-huh, yal na yàlla gën a woyofal yaram ñi. amiin baax na incha allah baax na. baax na yal na yàlla barkeel Diop. Diop ayum macha allah yal na yokk. yal na yokk yal na yokk Diop. amiin amiin amiin waa mhm. soxna si Diouf. mu mhm. nekk loo xam ne am na solo. El Mara ci sa waxtu bi moom jege na lool. wallaay wallaay <laughs> jege na lool tawarkàlla day nu nag. <laughs> Eh, waaye tamit eh, du ñu def rek eh, lu dul rek li ñu am ci waxtu rek barkeelu ko ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm. lan ngay tàggatoo tey jotaay bi nga xam ne tey wax fa dëgg yàlla muy jotaay bi nga xam ni mooy ginnaaw si rek bul suñu borom kàtt ni nga dem ak jàmm dellu si ak jàmm. amiin xëy na rek muy tàggatoo bu dul tàggatoo. wallaay wallaay jotaay Wadduha. wallaay wallaay askan sant nañ. tey jii mm-hmm. toog bëggoon dugg mu ëpp. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la alhamdulilah sant yàlla bu baax rek Mouhamed Amin eh, comme ni ma ko waxee si tàmbali ba rek doon kuma tënk tuuti si jaar jaar Wadduha li bokk si li si gane si tey nu mhm. si sant yàlla nu si sant yàlla bu baax tabarakallah eh, di di lay sant it ndax macha allah si ñun nga bokk. di lay sant si taxawaay beek yëtte geeg yëggee lépp di ñaan yàlla may la barke Duha. di sant kër gi di rajo municipal de Dakar. Mhm. dinaa di wax ne macha allah si la bokk macha allah. di mhm. sant kilifa gi. di ñaan yàlla yokkal leen ni xéwal ñiy topp Wadduha yëpp it nu ngi leen di sant nu ngi leen di siyaara nu ngi leen di ñaanal di sàkku sa ñaan eh, fa la képp koo xam ne mas nga bëggee Wadduha mm-hmm. eh, wala mas nga jok jokkoo mas nay am wala jotaay mas nay am fépp fu waay nekk rek fa tabarakallah nu ngi lay bàllu ak nu ngi lay ñaanal nu ngi sàkku sa ñaan Mouhamadul Amin. loolu daal la ñu doon tënk di sant bu baax Mouhamadul Amin di sëñ Malick Sidibé fa tabaarakala si taxawaay beeg yitte jéeg yëg gi. fa ñiy jàpp si liggéey bi comme ni nga ko waxee woon boutique Wadduha yi. Mm-hmm. macha allah liggéey bi def fay continuer. comme ni mu nekke woon incha allah. émission bi fa tabarakallah mercredi bu nekk da ngeen koy am moo xam rediffusion la moo xam fa tabarakallah Mouhamed amin dina am lu mu leen fi bàyyil. loolu moo nekkoon seen émission tey wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خنا ديكو سنتار بو باخ دي الله بول سبحانه وتعالى دولي كو كاتنال دولي كو دفال توفيق حق تايسي دفال كو نجاح دفال كو صحة داريني دفال كو سلام تي برك يونين تي بي مو يغلول دي ديمولان تي غاسان مو يغلول تي كانا من جابور جي وايتا من نينكو خيرك ميو نيو وان بولم تسمي راجو ارم دي راجو منسبال دا داكار دي نيو وان بو باخ باخ تي والو خارج بسج مالك سيدي بيكي لغي بو امسولو بيغا خامني سا سنة كي وقت بي اللر بو بجوت ريك سن جوتاي ودوها 22 جاب 0 اور وايتا مي دي نيو وات دي لن فاترين بولم بوتي جيغا خامني ريك لديك ديميني والو wàllu xuwa baa ngi fa li nga xam ne rek liy dox ci wàllu néegu euh, biir néegu sëy tabarkàlla ci wàllu gën lumu lumu mu nekk ci wàllum site yi nga xam ne site yi da leen a sonal lool siruna ouverture parfum ouverture li wàcce suukar bi tamit ñi nga xam ne dañu amee suukaru bëgg li ko wàcce incha allah bu fa demee lu yaatoo yaatoon fa lépp li ngeen yittewoo rek seen wàllum paj incha allah bu fa demee seen wàllum ñaan tamit moo ngi fa incha 817 70 44 bu fekkee rek ni euh, ci diwaanu euh, en face lycée Mame Limamou Laye ci Guédiawaye numéro boutique bi rek euh, yéen nga xam ne rek bi woo ngeen ko rek 76 la 310 95 60 76 310 95 60 bu fekkee ci diwaanu Point E la 70 la 922 23 75 70 922 23 75 bu fekkee que diwaanu Tëngéej la 77 262 36 28 77 262 36 28 diwaanu Kër Massar ngeen 77 733 97 20 77 733 97. 20 mbokk yi Mbour Saly Carrefour foofee yëpp incha jokkee kilifa gi incha lépp dana gën a mën a euh, daal yaatu waaye nag site bi bu leen ko fàtte li ngeen soxla lépp li ngeen soxla ci information ci El Hadji Mara Cissé mën ngeen def ñett w point point org ñett w wadduha point org mbokk yi mu mel ni jotaay wadduha bi tabarkàlla ñu ngi ko fas yéene yëkkati tey rek di ngeen daat euh, kilifa gi mu dem ci bismillahi rahmaani rahim waaye